jotaayu tafsir ak oustaz Hadi Niass bés bu jot ci waxtu wi. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم alhamdulilahi alqail fi muhkami tanzilihi chahru ramadan alladi unzila fihi alquran hudan linnaasi wa bayinatin min alhuda walfurqan wa sala allahu wa sallama ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi al axyaar xadaraat saada wa sayidaat nuraxibu bikum maratan uxra fi hadihi al umsiya alqur'aniya أمسية نختتم فيها دروس مفيدة جدا استفاد منها عدد كبير جدا من المسلمين في مختلف أنحاء العالم الإسلامي بتفسير هذا القدير المفسر القدير والداعي القدير الشيخ هادي نيس الذي نتمنى له طول العمر وأن يحفظه الله لنا فخرا li shabaab wa faxran lil umma sénégaliya wa lil umma al islamiya bismi axi wa sadiqi al ustaaz Sidy Lamine Niass nurahib bikum maratan uxra wa kama taarifuun liqaana daiman yatajaddad maa al quran al karim fi hada al yowm alladi naxtatimu fihi tafsir al quran al karim dimna al baramij ramadaniya allati awadatna alayha muassat walfajri al raida ixtaara Sidi Lamine Niass ka aadatihi daahiman ibnan axar min abnaa il quran il karim ibnan min abnaa il quran il karim eh, jaa misaalan li annubuur wali aljidd wal ijtihaad wali tafawuq hada huwa al ax al ustaaz aqulu al ustaaz Serigne Mbuub alladi bi jaanibi huwa alladi naatamiruhu في هذه الأمسية الضيفة اختتام حلقات القرآن في هذا العام وهو يستحق mbokk yi ñuy seetaan fu ngay mën a toll mbokk yi nga xamante ni yéen a teew ci jataay bu tedd bi yëpp ñu ngi ñuy ñëpp ci turu suñu mag suñu xarit al oustaz Sidy Lamine Niass di leen tatagal ci bis bu màgg bii bis bi nga xamante ni mooy bisu alquran nuñ ko baaxoo defee depuis ay at Euh, groupe Walfadjri dafay organiser ay benn ay baramij yoo xamante ni ci weer koor gi la koy def muy tafsiru Qur'an bu am solo boo xamante ni Oustaz Hadi Niass mii moo koy def fii mbooloo mu bëree bëri di ko suivre am ñoo xamante ni day ñëw di ko seetaan di ko déglu ngir njariñ lu am solo yi nga xamante ni moom lañ ciy taataane Sidi Lamine tamit am firi boo xamante ni daf koy firi ci beneen jël ko ci beneen angle nga xamante ni fajar gi. yaakaar naa ni koy topp ak man muy def tafsir bu ama am solo moom tamit ci rajo bi ci tele bi euh, indi alquran ca xóot-xóot ba indi alquran ca sumuwuliye ca yaatal ga tey nag comme ni mu koy defee toujours ak doomi alquran yi moom Cheikh Sidi tànn daara doomu daara boo xamante ni joxe na ay preuve def na lu ama am solo ci li nga xamante ni mooy wàllu économie fii ci Sénégal yaakaar naa ni Sénégal mënuñoo wax homme d'affaires Sénégal tudd ñaar ñett ñeent te tudd ñu monsieur Serigne Mbuub mi nga xamante ni moo toog tii tey Sidi nag ay critères yi muy tànn moom moo ko xam dafa may fàttali toujours benn bindkat bu mag bu ñuy wax Abbas al Aqad ca Égypte nga xamante ni bokk na ci bindkat yi gën a mag ci vingtième siècle bi ñu génn am silsila minal kutub téere yoo xamante ni daf ko tuddee abqariyaat abqariyatu Omar ibnul Xataab abqariyatu Ousmane abqariyatu Xaalid ibnu Walid la koy intéressé ca ñamuy tànn du Omar ibnu Xataab ak jaasi ja ak doole ja ak fulla ja waaye dafay gis ci moom loo xamante ni mérite lay doon loo xamante ni bokk ko kenn moom loola mooy tax mu bind ca moom téere na ma koy defee ci Omar na la koy defee ci Omar ibnu As defe ko noonu ci Bilal ibnu Rabah bind téere bu am solo ci Bilal même chose mook Sidi Lamine dafa mel ni ñoo bokk même critères yi nga xamante ni moom la ñuy tànn nit di tànnul euh, Serigne Mbuub puisque Serigne Mbuub c'est un homme d'affaires boo xamante ni réussir na ci monde des affaires mais def koo tànn puisque daara moo ko produire ci daara la génne bi mu génne ci daara tamit la nga xamante ni fa la ni di jaar di jaar ba ba prouver ba indi réussite def innovation bu am solo ci économie Sénégal loola la si di gis ci moom ba ni kon doomu daara la yoo xamante ni mat naa njukkal mat naa sargal moo tax mu tuddee ko tey bis bi nga xamante ni moom la ñu teewee nii tey su ko defee léegi duñu guddal ni ñuy def mooy jox ki nga xamante ni mooy Cheikh Hadi Euh, bala ñoo jox si xayru bidayatin liftitaahi mithla hadihi al umsiyat mooy ayin min adikri al hakim ñu oo ndongo bi ñuy wax Serigne Ngane nga xamante ni euh, journée nationale de récital du Coran bi ñu doon def ci mille 2015 bi bu yàggul rek fële ci Grand Théâtre moo jël deuxième xale boobu di Serigne Ngane moo ñuy jàngal alxuraan kon cheikh bi fal tatafadal maa taysara laka min alquranil karim إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما sadaqallaahul aziim sadaqallaahul aziim wa balaga rasuuluhul kariim jërëjëf sëriñ ngaan ngaan taal yàlla na yàlla def la mag te barkeel yàlla def la ci ñi nga xamante ne ëllëg lislaam di leen di puukare woo alxuraan ji neex na rafet na macha allah tabaarakallah ñu ñëw na léegi jox kàddu gi ki nga xamante ni wax dëgg yàlla mooy suñu fierté mooy suñu mbégte ñu ñëpp muy Cheikh Hadi Niass Cheikh Hadi damay wax toujours ni. bu fekkonte ni mag ñi tasaare mag ñi suñu mag ñi seen njàngale seen tasaare lislaam ci Sénégal ak ci àddina bi am na tey koo xamante ni moo gàddu drapeau ba damay wax ni Sëñ Adi Niass mii lay doon ndax fa nga xamante ni fa mag ña tegoon seen tànk fa la ko teg nañ daan firee noonu lay firee ca xam-xam ba ca yar ba ca tegin ya loolu nag Sénégal da koo soxla wax dëgg yàlla monde islamique dafa soxla modèle yu mel noonu université yi bëri na trop léegi internet bi am na technologie bi yaatu na waaye barke amatul firi mu mel ni mi Cheikh yi di firi fatwa yi muy def ni mu koy defee nga xamante ni fa na ko mag ñi daan defee noonu la koy defee loola ca barke ba nekk moo taxit ay soppeem dañuy gën a yokk rek bis bu set bis bu set ay sok ay soppeem Sénégal mais même ci bitim réew Ahmed Bachir Kounta Mouhidine toujours daf may wax bu ñu tasee faadal ma ne ko ah, mu ne ma mbaa yaa ngi may ñaanal Cheikh Hadi Niass sëñ bi Hadi ñëpp ko war a ñaanal xale boobu yàlla na yàlla sàmm ko yàlla nañu ko sàmmal ñëpp a rafetlu xam-xam bi macha allah tabarakallah ñëpp a rafetlu firi bi ndax firi alquran bi ñu koy firi bëri na lool dama koy wax tout le temps waaye yow ni nga koy firee wax dëgg yàlla ràññeeku na lool ndax firi goo xamante ne doo yem rek ci tekki baat yi dem waaye aaya bu nekk saar wu nekk da ngay indi asbaabu nuzul yi la taxoon mu wàcc contexte ba taxoon mu ñëw toj gi nga koy toj ak fexe ba képp koo xamante ni day toog ci tafsir bi wala mu lay topp ci télévision yëf yi day leer ci moom naññ loola daal moom tuyaaba ji cheikh bi xamoon nu mu toll yal na la yàlla fayal yàlla sàmm la nga continuer di bégal jullit ñi continuer di leen jëriñ ci xam-xam ak yar bi ak teggin yi kon Cheikh Hadi ñu ngi lay jox kàddu gi nga sànni ay kàddu ci mbir mi ginnaaw bi nga xamante ni alors gërëm nañ sa papa bi nga xamante ni mooy sa waajur Cheikh Sidi Lamine Niass ndax di wax dëgg yàlla lépp ci moom la dañuy wax naan peccum liir bu neexee yaay ja moo jàpp ca mbagg ya wala ca wagg ya ku ne xam ne taxawaayam ci yow ku ne xam ne yéenam ci yow kon ñu jox la kàddu yi bala ñoo agsi ci moom moom incha allah fal tatafadal mashkuran alhamdulillahi alladi bi ni'matihi tatimu salihat wa tubaraku alharakat wa tudaafu alhasanat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 fu ngeen mun di nekk ci àdduna bi rek maa ngi leen di boole juróomi baat yi ñu yàlla boole muy asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. di ko gunge ak ndokkeel ci koor gi di ko gunge ak ndokkeel tamit ci jotaayu alquran bu tedd bi di jiital ci nuyoo boobu ak ndokkeel googu ki yàlla jiital ci palaas bi di suñu sang di suñu kilifa di Seydi Mouhamadul Amin Niass mi nga xam ne sabab yi nga wax yëpp ci loxoom la ko yàlla jaarale mu ànd ca di ñu ci ñaanam gunge di ñu gunge ci wërsëgam ànd ci di ñu dimbale di ñu gunge tamit ci ay relation yoo xam ne mënuñ faa jote xadiisul qudsi yu ba nag dafa ne abdi lam yashkur ni ida lam yashkur man ajraytu niamati ala yadayhi kon loolu lépp ci moom lañ koy delloo taxawaay boobu nag yëpp boo ko jëlee bu fekkee am na dara lu muy tekki day tekki rek la sëriñ Saalihu Ture rek waxoon ci moom qalami yucabbiru daa'iman an kawnikum batalan yu yuqaawimu kasrata tughyaani loolu lekk lay tekki ñu koy ñaanal yàlla guddal fanam lool te yàlla tamit yokk ak wéram ci làmmiñam lay àbbu nuyoo ci mbooleem xulafaaw yi ci réew mi nuyul ko ci mbooleem boroom xam-xam yi ci biir biti nuyul ko ci mbooleem aima yi nuyul ko ci tamit xaritam soppeem sëriñ bu mi toog mu jël bis bi dara jaaleele ko ko ni ko waxee la bu ko ko dara jaalee dara jaaleelut ko ko waaye daara la ko dara jaalee jublu ci ñaar jublu ci ñi xamutoon sëriñ boobu fi muy yegsi mu wan leen ne doomi daara la ñaareel bi tamit mu jublu ci ne yéen doomu daara yi su ngeen yàqul seen bopp fu ngeen bëgg a yegg rek mën ngeen faa yegg ndax lépp lu fi doon dara ci réew mi luñ mën a teg loxo mbaa ñi mën caa teg bët wala ku fi doon dara ci réew mi soo toppee tànk ya rek daara moo ko tax a doon dara loolu nag lay fàttali ñi ko xamutoon di ko timit fàttaliwaat ñi nga xam ne ñi ngi ko doon xam tànk rek xam ne buñ ko toppee daara mën nañoo may lu ne kon sëriñ ni ngi lay ndokkeel timit ci bis bi Euh, ci teraanga ji tamit sëriñ bi yëkkati ko teg ko ci sa loxo tabaarakallaahu tamit te bu la ko defalee daara la ko defal nuyul la ko yow tamit waa oustaz Fadil Gueye suñ magam daara nga yaa ñu jiitu ci maydan bi luñ ciy nekk rek di ko topp dañuy topp seen jeexital nuyul ko tamit al mursid Iyaan Thiam al Abdul Aziz mii ci rajo Dunia nuyul ko tabaarakallaahu suñu baay xaj Moustapha Jaxate nuyul ko tamit asaati sa yi fi nekk yëpp ak borom xam-xam yi Euh, dañuy wax ne rek ku am gan da ngay yokk ñuluk tey nag gan yi ñu am la ñuy bàyyee kàddu gi rek loolu rek laa ci amoon lu may wax in uridu ila al islaha mastataatu wa ma tawfiqiya illa billah alayhi tawakkaltu ilayhi wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu rahmatullah Cheikh Hadi kàddu yi rafetati na hmm. yàlla na yàlla fay la hmm. yàlla sàmm la hmm. yàlla waxtu la ngay continuer di nekk mbégteem lislaam rek en tout cas ñu de suñu fierté nga euh, bala ñoo ñëw ci jox kàddu gi ki nga xamante ni mooy Mourchid Ahmed Eyane ñu wax tuuti ci ki nga xamante ni tey mooy parrain bi di suñu mbokk Serigne Boub Serigne Boub tànn gi du hasard parce que bëri na ku jaar ci daara sax Cheikh Hadi waaye ba mu fa jógee ba moo ko rek la fàtte daara sëriñ nag relation am ak daara dafa continuer dafa nekk doomu daara ba pare fier ci nekk gi mu nekk doomu daara Euh, maa ngi fàttaliku ndeysaan euh, cinq wala 2004 ñu bokkuñ ci invité du roi yi di aj di aji. Sidi Lamine Niass mi ñoo bokk vol bi ndeysaan dem ba àgg invité invité du roi bi du roi yi da cee bokkoon ñu bëri ci waa kokki yi bi ñu wàccee jidda si lañu amatul jàmm waa kokki rek dem mi naa fekk leen fa fa ñu nekk boole ceeg di laami sontoog ñoom di saafonteeg ñoom yëkkati xaalis bu bëree bëree bëri jox leen bëggul ñoom benn problème loola kóllëre la ci digganteem ak kokki yoo xamante ni def na ko te xam naa ne di ko defee noonu ci kokki ni mu koy defee ci kokki noonu la koy defee daara yëpp it nag képp koo xamante ni doomu alquran nga war wala nga yor daara fii ci Sénégal ràññee nga si eh, sëriñ boobu ci ndimbalam ci yëg gu mu yëg daara firnde ji ci mujj mooy association bi nga xamante ni mooy collectif daara alquran yi kuréel gi ko lëmu daara yëpp ci alquran siège la Dakar siège boo xamante ni dinañ koo jox nga xamante ni fa la ñuy réunion fa la ñuy daje fa la ñuy defee lépp loolu wax dëgg yàlla fonk daara ak bëgg ko rawatu ko boo ko dee xool mën na koo lée di ci am ay millions yi du jeex waaye daara jaral na ko lépp ñu ngi ñaan yàlla daal li nga xamante ni moom la suñu mbokk si di Lamin gis ci moom ba tax mu tànn ko tuddee ko bis bii te mu nekk tam lu mérito yàlla na yàlla def barke boobu tasaaroo ba jullit ñi yëpp gën continuer di ko jëriñoo ñu jox kàddu yi ki nga xamante ni kon kàddu gi euh, suñu mbokk suñu mag al oustaz al mursid Ahmed Eyane Thiam mu sànni kàddu ci jataay bi fale tafadal mashkura bismillahi arrahmani irrahim wa sallallahu wa sallama al bashar sayidina wa maulana wa habibina muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa ashaabihi wa sallama taslima bokk yu tedd yi xanaa nu dellu santati yàlla mi nu defalati tey li mu nu daan defal at mu jot te tey jii nag nun ñëpp nu xam ne yàlla ndeke nangaloon nanu sunu ñaan daaw bi nu ko waxee ne ko yow borom bu tedd bi maa ngi lay ñaan nu fekkewaat ko déwén nun ak ñi ko sabablu ak ñi ciy fekk ñi koy fekkee ak ki koy def a ah, boobu ba démb xamaguñu woon ndax yàlla nangu woon nu ñaan gënu ñaanoon daaw tey nag moom wóor nañu ndax dellusiwaat nañu ka ko daan defa ngi nii ku ko daan def lu mu ngi nee baayam kër gaa ngi nii di gën a jolli di gën a mën a di gën a mën a def lu rafet la mu daan def muy wal fajari mu yokk nag encore na gën ko ci sant borom bi ndax nit ñëpp nit ñu baax ñëpp daan nañ fi ñëw waaw ku mën a ñëw ñëw ku mënul ñëw bëgg ngaa ñëw waaye ku ñëw boo fi jógee da nga jëriñ keneen ku ñëwul woon ndax la nga fiy dégg lu mucc ayib nga dem di ko nettali ba ku ko dégg faf mu ci ayib ndax la mu dëgg nga mbaax ga muy bëgg moo koy moo koy def mu mujj moom itam mu ci ayib tey nag jataay bi gën a yokkuwaat nii la de lu rafet day yokk rek toog sëriñ mbuub mii wala tamsir mbuub sëriñ mooy tamsiir rek mm-hmm. mu ñëw fii toog fii nit nag bu la dara yombee da ngay foog ne ku ne mën na koo am waaye cey bu ko keneen soxla woon bu dul lislaam xëy na mu dem na ndax bëgg a baaxal waaye yebu ca nam ci ni mu yeboo ci ñëw fii walla niñ ko fonkee fii ndax ni mu yeboo ñëw fii benn façon bi la am na foo xam ne su ma fa àggul su ma xol du sedd xëy na sax am na dana am ñeneen foofoo àgg waaye dama fay àgg nag rek maa tey dama ne ku mel ni moom saxagul bejjaaw bu ko saxee man gisuma ko yàlla may ko mu jóge ci daara jooje ngeen wax nga xam ne tey ci tey ku tudda daara boo tuddugul daaray kokki xol seddagul mu ñëw fii ci réew mi nekk om d'affaires jëfandikoo yar ba ma fa am doxalin wa ma fa am yàlla boole ko nag tey loolu laa la wax ne bëgguma ko waaye danaa si àgg yàlla boole ko nag tey ci ñi gën a am ci réew mi wala ñi gën a am ci àdduna si te demagul fenn waaye loolu liggéey mayewu ko jëf ak jëfiin jëf ju jëf ju jëf ju wóor ak jëfin wu sell jëfin wu xelu jëfin wu maandu jëfin wu teggeenu yàlla nag bu la bëggee dénk daf lay jox loo xam ne ñëpp koy soxla ci ngay xamee ne jege nga yàlla kon jërëjëfati Sidi Lamine ci sa kër gu màgg gii wal fajri xamoon na lu nekk dana niru tur turandoom wal fajri gii dëgg yàgg na fee jolle ak mbaax yàgg na fee feeñee roy lu baax ba yàgg nañ ko fee déggee tey jii na wax dëgg yàlla sëriñ buub ganale gi ñu loo ko lool noo ngi ciy sant borom bi waaye dëgg-dëgg jotaay bu nu mel ak li tax ñu indi li fi muy pirim alquran wax dëgg yàlla bés bu ne ñu gis koy firi waxtu wu ne nu fekkee fu ñuy firee ah kay firi nu mu mën a mel ak nu mu ko mën a firee gannaaw waxu yàlla lay wax rek dañ koy teral waaye ci sëriñ aadi wax dëgg yàlla bu yoon buy nettali wax yàlla xam-xam bi teggin gi yar bi bëgg lu baax ku ne maandu gi ku ne bu fi ñëwee war naa gën a sant boromam nun ñi ñëw tey jii nag ci yàgg déglu aadi war na noo gën a mën a sant sunu borom bi nga xamee ne baayam ju tedd bàyyam ju tedd ji foofu laay teeralee maa maa ngi wax rek dama xaw a bëri wax bàyyam ju tedd ji ba ma ba muy wax la mu wax booba booba booba du waxu caaxaan ba tey ñëpp ñu ngi koy gën a gëm man xassahu bi waadixil bayaani min bayni kullil biidi wa sodaani sa yooyu xalifa ñes qaala lu ubaydul kawlaxiyu muhammadu salilu abdillahi wa huwa yahmadu man xasahu bi waadixi lbayaani bi wa suudaani waaye nag rëy ak bëgg feeñ taxu ma koo wax xalifatul xaaji muhammad taxaddusan bi niamatil wahaabi looloo ma ko tax a wax taxaddusan bi niamatil wahaabi bi raxmi an fil munkiril murtaabi musalliyan nag ala rasulil arabi wa alihi ulil ula wa rutabi ala rasulil arabi wa alihi kenn ci waa yonent bi nag ñoo defar kër gi jiiti ko lu baax di fi jolli rek ba tax sëriñ boobu ñëw fi tey jërë ngeen jëf jasakumullahu an il amali l islami an il birri wal abrar xayra ma yujza bihi l abrar bi xormati sayyidil wujudi alami sawat barakati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam bi Aziz wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu Mourchid Ahmed Ayane kaddu wax dëgg yàlla yow bi dalaa soxla judi ñëpp dañ lay ñaanal ci sa taxawaay lu concerné l'islam concerné langue arabe concerné diine mbokk gi doo ci tayeer mukk ci àddina bi yaa ngi ciy yëngutu guddi yaa ngi ciy yëngutu bëccëg sa yaram du ko fekkee sa poche du ko fekkee ñun xam nañ ci dara di nga ciy wut daal loolu noonu ci aw yiw ak lu baax fas ko yéene bokk ak jullit ñëpp yal na la ko yàlla defal bi jaahi rasulillah kon ñu jox kàddu gi keneen koo xamante ni ci suñu mag ñi la bokk mag ñi nga xamante ni ñoom tamit def nañ seeni i bu baax a baax ci li nga xam appel islamique wala bokk prédication ci Sénégal muy addaawal islamiye ak ci njàngalem arab njàngalem diine muy Cheikh Moussa Diakhaté Cheikh Moussa Diakhaté nag moom fu ñu ne nii bu ma ko doon décrire dama naan bokk na ci ñi ñi gën a ñi ñi gën a ñi gën a tabe gën a yaatu xol ci Sénégalais yi nga xamante ni man xam naa ne bi ma juddoo léegi moom laa gis muy koo xamante ni xol ba li mu yéene boppam la yéene ñëpp réew arab yéene muy dem muy Arabie Saoudite moo xam muy Dubai moo xam muy Koweït di dem di wut ay fonds ci ay partenaire am pour tabax ay école arabe daaree alquran ña nga xamante ni day dem di jéem a def la muy def fu mu fa dem fu nekk lu lu mu fa jëlee bu ñëpp la koy wax ah man kat dem naa ci association boo xamante ni maa ñoom defoon amoon ay accord def nañu lii man jox nañu ma nangam léegi nag demal nga tenter sa chance loolu néew na ku koy def li ñu baaxoo xamee ci mbokk yi mooy ku ci dem ba am foo xamante ni da nga fay jëlee saw kaañ moo xam association la moo xam benn bienfaiteur la bu ko def da ngay def mooy ni tekk nëbbu ko kenn doo ko wax kenn parce que da nga soo ko waxee nit day yàqu waaye moom képp ku ku mu xam ni tabe nga yoon yàlla mën nga cee def sa alal ku mu xam ku nekk dina la wax ni la demal foofa mu jox la loolu benn la ñaareel bi mooy koo xamante ni téléphone am téléphone bi moo koy fay de chaque fin du mois otoom moo ci def bu essence waaye tey jii boo toogoon bëgg a téléphoné daan la ah waaye jëlal téléphone bi lan lay jëriñ boo doon oote France wooteel États-Unis foo mën a wootee ci àddina bi Cheikh Moussa daan la jëlal wax ba def oto bii course boo am soxla soo mën a am demal Kaolack demal Saint-Louis demal na daan la jëlee oto bi taal dem loolu nag wax dëgg yàlla ay valeur la jikko la yoo xamante ni vraiment nit ñi soxla nañ ko kon bala ñu ko jox kàddu il faut loolu ñu seele ko ci mbooloo mi di ñaan yàlla moom tamit mu sàmm ko wawatul ñu ko ndax moom tam dundam vraiment njëriñ la ci lislaam njëriñ la ci diina ji njëriñ la ci ñi nga xamante ni ñooy am na alquran kon Cheikh Moussa kàddu gaangoog الحمد لله الذي عضانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن حدانا الله والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki day ki ma tegu ci moom de li mu wax rafetaay beeg matal geeg jotal gi neexu la topp muy Cheikh Ahmed Iyane Thiam li mu wax rafet na lool te wér lool te jub lool man nag maa ngi wax ne Sidi Lamine bu ñëpp mel ni moom duñ yab benn arabisant Serigne Mbuub mi bu ñëpp defal ni moom duñ yab arabisant kon daañu leen jox seen cër bu wér sëriñ Adias nag firi man de daanaa firi alxuraan lu yàgg yàgg yàgg waaye yéem naa ko naw naa ko lool am naa sama doom juñ naan xamsatu jaxate bandam yëpp mi ngi ak moom fu mu toll rek moom lay déglu ma ne ko loo ci dégg rek mooy ci dara du ko dindi firikat yi bari na waaye kii de lim lay firil sooy boo jàpp ci bu baax a baax léegi kon <coughs> dañuy gërëm Sidi Lamine mi nga xam ne moo taxaw wawal fajri mi nga xam ne moo fi nekkal <coughs> lislaam bi nekkal fi réew yi mi rekkal fi réew yi ñépp ku am loo bëgg a wax fii nga koy wax see ku bëgg dégg dëgg fii ngay dégloo dëgg yal na yàlla saxal wal fajri fajar ba muy àgg ci bëccëg fajar leer guy tàmbali la di yokk ba jëm ci aw naaj yàlla na kër gi topp turam léegi yàlla na yàlla saxal wal fajri dolli dooleem dolli doole yi ñi ko yor sëni ah, aadi ñas itam yàlla guddal fanam lool ndax am na njëriñ lool ci jamono ji li muy jox nit ñi kenn mësu koo am lu danaa saan nag baat bu gàtt <coughs> ci sëriñ mbuub man daaray kooki sëñ mat sa xeer ba muy dund dama defoon conseil technique ca daara ja ba diplôme yi ñuy joxe léegi ci sama sabab la ku tari dem rek gënut wutal ay diplôme ku tari nga jox ko ko mu ne def ko yët ma ma di imprimer ko yët ko ba mu jeexee nag ñu defal seen bopp waaye li may joxe dëggal li ngeen ne bis bi dañ koo jox doomi daara ju fonk daara man comme daara yi kooki dara duma ci ump ndax damaa intéressé sëriñ mbuub mii ndékkil daara ja fanweeri million la ciy def weer mu ne dane nañ seet dañ leen di defal fonde bu saf suukar saf meew ñëpp lekk ci ba regg ñaata la ñu ne ko loolu di dana mat ah, ñetti million par weer mooy nañ ko saxal daa kontiwul ak ceeb bam fa daa yóbbu waaye ndékki la rek fanweeri million la par weer ndékkil daaray kokki fanweeri te moo ko fay joxe daaray kokki nag <coughs> mooy daara ji nga xam ne doo fay dara da indi sa doom rek léegi na sant daal boo koy ñëw nañ koo indil gaal gu def téeréem indil ko téere kenn laaju la dara soo dikkee toppatoo ko def nga lu rafet boo ko bàyyi ñu toppatoo la ko ba mu xëy tari alxuraan kon nag yal na yàlla saxal wal fajiri dooleel ko dooleel sëriñ Mbuub mi nga xam mi ngi dooleel daara ji ndax nun ñëpp doomi daara lañu kon kuy fonk daara amee nañ la ngërëm amee nañ la njukkal yàlla na yàlla guddal seeni fan wéral seeni cër bi jaahi sayyidul wujuud wa alimi suhuud assalaamu aleykum wa yi rafet na ñu ngi ñëw kon ci ki nga xamante ni nag mooy parrain bi suñu mbokk suñu xarit sëriñ Mboup mu sànni ci ay kàddu euh, damay wax toujours ne bëri na lu ñuy gërëme nit waaye am na koo xamante ni daanaka mat naa ñaanal mat naa gërëm ndax mooy mooy waajur yi nga xamante ni ñoo ñoo ñu jël ñun teg ñu ci yoon yi nga xamante ni moom la ñu teg jàngaloo ñu li nga xamante ni moom la ñuy jàng tey muy alquranul karim sëriñ bu mii wax dëgg yàlla euh, comme ni ko ñëpp waxee rek kenn du ko présenté ti ci taxawaayam ci fullaam ci faydaam tànk doomu daara ak fierté gi nga xamante ni moom la am ci doom gi mu nekk ci nekk gi mu nekk doomu daara waaye loolu it nag dinañu pousser nag ci ñu fàttaliku góor gu baax koo xamante ni moo ko meññi moom mii muy El Hadj Baara Mbuub parce que Baara Mbuub it nag wax dëgg yàlla ñun xam nañu ko bu baax a baax a baax ñoo bokk dëkk Kaolack mu nekkoon góor gu baax góor gu bëgg alquran góor gu bëgg lislaam góor gu gëm Cheikh Ahmed Bamba def ci moom li nga xamante ni moom la def ci moom teg ko ci yoon wi nga xamante ni ci la ko teg ba tey jii foo waxee CCBM àddina bi yëpp dégg ko mu delloo ko njukkal tamit parce que man bi ma déggee CCBM xaw ma woon lan la abrégé ma ne waaw sëriñ lan la jublu ci CCBM ndekete moom góor ga la delloo njukkal comptoir commercial baara mbub loolu la wax dëgg yàlla aussi vraiment day wane ne ante ibnu reconnaissance bi nga am ci góor ga ci yar gam la yar ca diine ja ca fulla ja ca fayda ja jàngal la métier mi ci façon ba gën a sell delloo nga ko njukkal parce que CCBM yaakaar naa ne tur fi mu nekk nii àgg na partout àgg na fépp ni ko Sidy Lamine defee ci góor gi mu Hadji mu Mouhamed Niass ci mboolem loo xamante ni bind na ko bàyyi ko fi mu itteewoo móol ko ba àddina yi bépp xam ko lu mel noonu yow mii moom nga def ci góor gi rek muy El Hadji Baara Mboup kon ñu ngi ñaan yàlla moom tam fa mu tëdd yàlla na ko yàlla xaar àjjana yàlla na ko fa mu jëm gënal fi mu jóge yàlla yàlla teg njabootam gépp jim fi bàyyi yëpp loxoom ci ñoom yow it mu sàmm la wax dëgg yàlla kàddu gaangoog Cheikh Serigne asalaamualeykum wa rahmatullahi taala Seydi Sidy Lamine Niass rais wa mudir al aam majmuati wal fajri al ustaz Mouhamad Hadi Niass wala ustaz Fadil Gaye saadatul xudur al kiram asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu innahu min dawaaci sururi wal bahjati an ahdural yawma xafla ixtitaami duruusi tafsir alquraan alkarim li qawlihi taala yaa ayuha allazina amanu istajibu lillahi wa lirasuli isa daakum lima yuhyikum allati kaana fadilatul ustaas Hadi Niass yutxifuna bihi mundu bidayati shahr ramadan mubarak min walidihi albarri sidi lamin allazi yar maahu alaaqatu sadaqat wa wuddin wa taawunin mundu muddatin tawila wa ashkuru jamii alxaadirina wa suyuux asalaamualeykum wa rahmatullah maa ngi nuyu ñépp di leen sant di gënam bu baax ki jotal ki tax jotaay bi am tey muy alxaaji Sidi Lamine moom xëy na tànn na ma nii waaye place moo ci waroon a gënoon a mën a toog ndax ah man sama référence la te lu may dugg saa yi ma ko wooyee wax ko dana ma ci jox xalaat dana ma ci yokk loo xam ne nii dana am fit ndax ba may dem kaw Kaolack ñu woo ma may dem buuti chambre de commerce dama ko woo di ko laaj xalaat mu wax ma benn aaya benn hadis ne ma innal bir inna minal birri an yasila ahadukum wudda abi mu ne ma loolu rek doy na fa sa bàyyi tegoon sa tànk nga dem fàddali ko te ba ma ca demee tamit ndam laa ci am te li may jox exemple ne maanute gi am ci moom ba ma demee Kaolack yaakaar ne ne siidikat ci ñi ma wax ma dem ci la bokk léegi damay campagne naay wooteleem dana ma déet kaay su ma la ko defalee defal ko keneen te ak maanute laa nekk ci lii demal nga góor rek kon loolu dafa am solo moo tax lii mu ma woo tey laaju ma ko ko bëgg ko ci lu ma neex ndax xam suba mu ñëw bëgg ko wax leneen lu bokk ak la nga xam ne mooy dëgg ma gis jikko te loolu la ko senegal yépp seedeel ah yaakaar naa ko koy mere da nga koy mere ci luy dëgg ndax Sidi teleem bi jëlu ko wala ni mi ni alxuraan waxee woon ni eh, yonent bi waxoon rek lay def man kon minkum karan fal yuxayirhu bi yadihi fam lam yastati fa bi lisaanihi fam lam yastati fa bi xalbihi yaakaar naa ñett yëpp lay ba day jë day jeexe loxoom jëfe làmmiñam jëfe xolom yaakaar naa loolu moom ñëpp mën nañ ko ko seddeel a ah, kon nag mbokk daara yëpp ñu ngi lay gërëm ndax man ci daara laa gën a bokk ci opérateur économique ndax ah, lu ñu mën a fàtte bu ma génnoon àdduna yàlla na yeex mën nañoo fàtte bu baax opérateur économique ndax ñu ma ëppale woon ñu ngi fi kan naa ñi laloon alxuraan ka dajale woon alxuraan Ousmane Ibn Affan wala ñëpp ba léegi ku ci mën laal rek def ci mool rek tey ñu ngi lay fàttaliku waaye ay multi multi milliardaires yaakaar naa ñëpp fàtte nañ leen ndax ko na rek da gis ku la ëpple ah di gërëm bu baax samay waajur ndax wax dëgg yàlla tamit sama yaay mi ngi fi di ko gërëm di ko ñaanal di gërëm sama waajur di jiitu àdduna alaaji baaramu moom tamit daf ñu taxaw ci alxuraan alxuraan rek la mës a bëgg fu ñu mas a jàng fu ñu mas a dem tamit day yóbbu ñu jànge fa alxuraan ndax da daan wax na jàng leen fépp sam yóbbu na ay ay doomam kokk ñu jàng fa yóbbu na ay doomam ci murid ñi jàng fa yóbbu na ay doomam ci tijaan ñi jàng fa lu mu daan wax rek ne bu ngeen jàngee ba xam rek da ngeen xam àdduna yaakaar naa kon loolu lim doon jéem ah am na ko tey ci alxuraan a di gërëm bu baax tamit ah sëriñ aadi moom tamit ci njàngale gi muy jàngale ndax ni ko kilifa gi waxee léegi euh, wax na ko mooy al euh, ulama warisatul anbiya mooy ñi am borom xam yi ñooy euh, ñoo doon yonent bi ndax nit ki nga doon yaay moom ndax suñ doon xool tey place yonent bi dañuy wax al ulama warisatul te yow ku la gis démb rek laa la mujj danaa ci ñëw mu nekk lu am solo kon yàlla yàlla fay yàlla yàlla fay alxuraan di gërëm tamit suma kilifa yi nekk fi yëpp euh, euh, Cheikh Ahmed Iyane Thiam comme ni ma koy waxee rek ah, dama ba ma nekkee xale ba léegi laa koy dégg mook euh, Oustaz Moussa kokki yëpp mu wóolu rek sama waajur wóolu rek Sëñ Ahmed Saxiir su ma toogee ba tey jii ñoom ñu nekkoon ci lislaam di ci di ci di ci jàpp ba ma toog tey man tamit ma toog fii ñoom ñu toogaat kon damay wax ne ñun dafa mel ni ñi ngi doog di départ ndax ñoom tey waroon nañoo mën a retraité kon waaye lislaam moom kenn du ci retraité xanaa yàlla wala te yàlla yàlla na yéex di gërëm ñi fi taw yépp ndax bis jataayu tey bi dafa am solo ndax solo gi mooy ah soo xoolee alquran li mu wax ah, majtamaa xawmun min baytin min buyutillahi yatluuna kitaabillahi wa yatadaarasuunahu fi ma baynahum illa nazalat alayhim sakinat wa xasiyahum rahmatu wa zakarallah fi ma indahum mooy jotaay bi ko ku ci nekk rek su fekkee nii yonent bi wax ne am rek daanaka texe nga ndax koo xam ne mu wax lépp rahma ak sakina ak malaaka yi ñu lay tudd kon loolu am na solo kon nag loolu mooy tax ne doomu daara ba pare tamit gërëm tamit ñaanal suñ Ahmed Sakhir Lo mii jàngal alxuraan ndax dafa am lu mu daan wax loo xam ne nii ñun àggaguñ ca dafa daan wax ne su ma manoon damay lay jël nit di ko jàngal alxuraan di fay baayam di fay yaayam ba jàngal ko ba mokk alxuraan mën na ko demal buñ dajee yombal xeyam la ñu ne ko loo jublu mu ne ngërëmu yàlla kon nag kooku ku ñu jàngal alxuraan daan ñu dundal daan ñu lépp kon ñun bu ñu xëyee tu li ñu yàlla denc ñu di ko jël sax di ko dugalaat ci daara dañuy fay dañuy fay bor waaye bor ba du mat ba sëkk ah kon nag ma wax ne alxuraan moom dafa nekk loo xam ne ku ne danga ko war a tiitaroo li war a jaaxal nit ñi tey ci jamono bii mooy ku jàngul alxuraan di mën a tekki dara looloo war a jaaxal nit ñi waaye ku jàng alxuraan ñi ndax mënoo gis preuve ne lii du preuve ndax soo duggee ci fu ne soo duggee ñu jàng alxuraan suñ tey woon seen loxo ci mbay mi mu taxaw suñ téye woon seen loxo ci économie mu taxaw suñ téye woon seen loxo ci njàngale mu taxaw suñ téye woon seen loxo ci social sax ndax tey dëkk bi li ko téye yépp yépp mooy kilifa yu mag yi ndax ñoo ko téye ndax dégg ngeen fi bu yàggul kilifa gu jóg bëggoon a def benn manifestation ñu woo ko ne ko kilifa diw nee nga taxaw rek mu bàyyi ko fa loolu yaakaar naa tey waa Burundi waa Nigéria ñoom ñëpp bu ñu amoon loolu danañ daw ba fat man daal loolu doo mën a wax li nga bëgg lépp wax lépp waaye daal li ma bëgg leeral rek mooy alxuraan moom luñ war a gën a tegaat ci kaw ndax njariñu nit ñi rek a fi nekk ndax ah soo xoolee alxuraan ñun ci gestion bi daf ñuy jàngal gestion rek waxuma sax diine dangay gis alxuraan lan la njëkk a teg ndax société daanaka pour nga defar ko accord la ndax soo gisee alxuraan ni mu tëddee yaa ayyuhal lazina amanu izaa tadaayantum bi daynin ilaa ajalin musamman faktubuhu mooy notaire rek soo jegee société di ko def faktubu wala yaktub baynakum kaatibun bil adli fa la la taxawal boo paree mu jàngal la ne la wa awfu bil ndax liggéey yëpp ay contrat la yooyu signé wala ay accord facture jënd jaay mooy na ko respecté mu jàngal la wa awful kiila kayla wal mizaana bil qist na nga yemale na nga respecté doo jaay nit na nga fexe ba nga xam ne qualité bi nga ko jaay nga jox ko ko ah mu jàngal la waa dul amaanat ila ahliha ku la dénk na ko delloo parce que ki jënd jaay ne la livré ma da ko ko war a delloo mu jàngal la tamit social ndax mu jàngal ñu dañu ne am xuz min amwaalihim sadaqatan tutahhiruhum wa bi biha képp ku yor alal di ci sarxe di ci génne asaka alal di daf koy week daf koy week dangay gis sax nit ñi mu nit lakkale wala yàqale ñu ne la xanaa daawoo ci génne asaka kon loolu dafa am solo ah ñun nag ah rek lañ xam doon naa wax ak benn kilifa ci benn bis ma ne ko ah, moo wax ko benn affaire ba noppi mu wax ma ci économie ba noppi ma explique mu ne ma foo xamee lii te jàngoo ko ma ne ko déet jàng naa li ma jàng moo gën a for li nga jàng nag man alxuraan laa jàng hmm. te alxuraan waxu yàlla la te bul yaakaar ne alxuraan moom daanaka julleeg woor ak yooyu tuuti la ci wax li ci ëpp solo nan lañ mën a toppatoo nit ci la bokk waaye nag ma profité ci occasion bi ndax ah, euh, sëriñ suñu yaakaar dafa wax lu am solo sëñ Touba alxuraan li muy rëy rëy da dégg mu ne watar konal kaziba yaa ixwaani afdalu min tilaawatil xuraan jàng alxuraan baax na lool waaye boo ko booleek ba ñu wax lu dul dëgg yaakaar naa dane nit ko toog toog di wax dëgg sax kee di jàng alxuraan watar konal kaziba bàyyi nar moo gën jàng alxuraan te jamono bi toll na foo xam ne ni yaakaar naa Sénégal si di da ko dégg toujours mu di ko wax jàngal nit ñi te alxuraan loolu rek la ndax nar mooy tukkal àdduna mooy indi sosal nit mooy waxal nit lu dëgg mooy def lépp kon daal ah, maa ngi gën a fetliwaat di gën a motivé wu ci alxuraan lu ma ci defoon danaa ci def lu lu ko ëpp keroog damaa toog fële kii la méridien ñu toog wax parce que boobu lañ may doog defal fal union nationale des président chambre de commerce ma jël parole ne président man maa fi gën a néewi at maa fi gën a mooy diplôme waaye diplôme langue Molière laa diplôme waaye am naa ay diplôme yu baax yu bari ci làng bon jë <laughs> langue yàlla ñu tëb ne ma luy langue yàlla mooy leen langue yàlla mooy alxuraan mën na alxuraan ndax yàlla kalaamu la wax nit ki li nga wax ngeen kalaamu laay gi ñu xam alxuraan la gisaguñ beneen kalaamu laay ci leneen a ah, xëy na ay injiil ak yëpp wax nañ ko waaye ñun liñ xam te li gëm ko kalaamulaay laay moom lañ moom moom lañ jëm ma di ci fàttaliku rek barki démb benn naar yónnee ma benn message yégu ko sax waaye daf ma yónnee benn message ma déglu ko mu fekk ñaar ñuy waxtaan ci alxuraan rek lañ doon wax ñu doye di la waa ji di xool ah, soxna si ba mu yàgg ndaw si ne ko loo may xool mu ne ko wazayyannaha li naasiriin ndaw si tamit mokkal na alxuraan ne ko wa hafiznaha min kulli shaytanin rajim ne ko wa hafiznaha min kulli mooy xool ko xool na ko ne ko ah alxuraan la utiliser ndax alxuraan leneen la doon wax rek waaye moom mu jël ko kii biñ demee ba wax ba nga xam ni madame Seye ci nekk nangam mu ne ko da joxe can waaye ne ko wala zina laa yajiduna maa yunfiquuna harajan mu ne ko ulaayka humul mubaaduna <laughs> alxuraan la ñu wax ba jóge ci <laughs> kon nag maa ngi gërëm di sant jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah. kàddu yi macha rafet na. yaakaar naa ne vraiment euh, joxa nga nit ñi découvrir nañu Serigne boobu quand même gis nañu beneen facette ci yow boo xamante ne xaj na nit ñi sax. fooguñu ko woon ñu bëri dañ ñu woon rek xañ na sëriñ kat mokkal na alquran homme la bu réussir ci métier waaye nag dégg arab gi moom macha allah ak maîtriser alquran ji ba ciy wax wax yi nga ci wax moom loolu moom ñu bëree bari xamuñu ko woon yàlla na yàlla yokk yàlla sàmm la vraiment. kon léegi nag mbokk yi ñu ñëw ci ki nga xamante ni nag mooy ndeyu mbili gi nag ki nga xamante ni moom laay tuddee asadul islam wa asadul démocratie wa asadul xaq al oustaz Sidy Lamine Niass gayndeeg lislaam laa koy tuddi toujours day reen ma faadal ballig may wax di ko tuddee gayndeeg démocratie gayndeeg liberté d'expression ku ko ku ko ku ko ku ko contre ku nekk li ko contre mooy dëgg rek waaye dëgg moom ku ci jàpp moom ku la contre tam daanaka mëtt a faale ndax dëgg mooy mooy mujj àla kulli xaalis ku la ci mere tey tamit ëllëg dina ànd ak yow te boo xoolee mboolem koo xamante ni dem nga ba mere ko ci ay position gu muy wax bu soo boo dawalee sa tuuti rek démb gu jigee ñëwoon nga gërëm ko sargal ko ci position yi nga xamante ni moom lay jël sargal ko ci dégg gi nga xamante ni moom lay wax li tax nag dëgg am solo mooy moom fa mu nekkoon la nekk ba ba tey même position yam doon jël depuis Senghor moom lay jël même dëgg gi muy wax boo waree bu waree àddu dina àddu bu buy àddu aussi moom islam ñëpp xam nañ ko la mu gëm loolu lay wax Sidi moom moo nekk nii nii ba ba tey donc xarit ci démb yi tey mën nañ nekk noonu noonu tey waaye ku ci am xere di nga xam ne moom la koy tax di wax mooy lu avancé loo réew mi rek preuve bi mooy bërki dem boo njaay sëriñ ju ju ju ñu ne ko léegi marche bi ñu bëggoon a def ci ñaari veille politique yu mag nga xamante ni Sénégal yëpp jàqoon nañ ci mënoon naa yëngal Sénégal malgré ci yu bari teewul dafa ñu di daal man du ma ko seetaan jël ndigal ci xalifa généraux yi nga xamante ni ñoo nekk Sénégal gi yëpp am ndigal daal di jóg fexe ba marche boobu amul dem ci président Macky Sall wax ak moom dem ci président Wade wax ak moom ba réew mi yëpp dund jàmm jooju kon yi di ñu ngi lay jox kàddu xam naa dinaa ci yokk li Serigne wax léegi ni lii ngay def doomu daara yi ci émission tànneef bi nga xamante ni da ko tànn muy génn doomu daara yi nga xamante ni dañ leen a marginaliser ci Sénégal Sénégal moom réew mi dina yeex a ndax ñi ko jiite dañoo joxul alxuraan gëdd gi ñu ko war a jox te nag tant que associé wuñu doomu alxuraan yi ci l'affaire de la cité réew mi du avancé mukk ci àddina bi ñoo am valeur ñoo am vertu ñoo am sellal ñii sëriñ waxee léegi njaay ak jënd la ca war ak la ci yàlla wax ak la mu ci digle bu fekkonte ni tey réew mi yëpp li ñu alxuraan jàngal ci jikko ak ak ci muamala jëflante ci respecté mag ah ci sellal bu ko ñëpp appliqué woon kon Sénégal jëm ci kanam réew yu ko appliqué yëpp fu waay toolu di leen dégg ci seen avancement sur tous les plans nag moo xam économie moo xam politique moo xam culturel moo xam social kon Cheikh yi di ñu ngi lay jox kàddu maa ngi jégalu ci ci ëppal gi di wax ni léegi li ñu wax sànq ni léegi li ngay def doomu daara yi li ngay jox doom doomu daara yi di leen teral ndax ni mérito nañ ko puisque am na lu ne si ñoom loo xamante ni alxuraan ko def si ñoom ñu génn ko ba àddina bi yëpp gis ko yow aussi vraiment loola yeeyoo nga ko doomu daara nga joo xamante ni la nga def mooy taxawal groupe de presse boo xamante ni moo ëpp ci Afrique def ko nag mu nekk voix la voix des sans voix ñi nga yaakaar naa Walfadjri képp ku koy suivre ku nekk da nga cee sa bopp ku am problème ku nekk amoo foo ko waxee amoo foo ko jooyee boo ñëwee ñu tàllal la micro damay wax ni Walfadjri moom école la journaliste bu ñëw ak bu dem ak leemale booy xool mboolem groupe de presse yi fi nekk journaliste yi fa ràññeeku yëpp fii fii lañ jaar waaw mu yaatal kër gi nag vraiment njabootu ñëpp xale yii nga xamante ni ñoo ne ci Walfadjri gi di fi liggéey kenn ku ci nekk amel nga njukkal Sidi Lamine moo xam wax nga ko moo xam waxuloo ko su ko defee léegi nag ku mat a ñaanal la puisque sagu réew mi la sagu lislaam bi la ku mu ku nekk sax da ngay ñemee même boo xawee mbuqat sax booy ànd ak moom da am fit ndax yàlla la gëm lépp lu muy def yàlla la ciy jiital kon daa Cheikh Sidi vraiment ñu ngi lay jox kàddu ci jotaay bi bismillahi arrahmani arrahim alhamdu wasalaatu wasalaam ashrafi almursalin muhammadin ibni abdillah wa ala alihi altahirin altayibin wa sahbihi alghurri almayamin rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli ixwata alislaam ixwata aliman ixwata alixsan fi kulli makan أيها الحفل الكريم سماحة الشيخ محمد الهادي الأخ سرين بوب العامل الناصح أيها العلماء أيها السادة والسيدات الله عليكم ورحمته وبركاته ها نحن nudiu hada ash-shahr al-karim fi ayyaamihi al-akhira shahru ramadan alladi unzila fihi al-quran shahrun kulluhu baraka wa kulluhu nicma وازداد بتفسير آية ذكر الحكيم من طرف ابن البار محمد الهادي بهجة وجلالا وجمالا فكان سخيا في إعطائه من خلال القصص ومن خلال الإعجاز القرآني ومن خلال التفاسير التي البسيط إلى المعقد ومن المعقد إلى البسيط رحلة دائمة ودائبة فجزاه الله عنا كل خير فلقد سار على أقدام كرام والده الكريم وأجداده innaha zurriyatun baaduha min baad laqad istamactu wa asgaytu ila tafasirihi wa kaana axiruha fi surati alfatx wa waqaftu inda axiri alaya wa huwa yusiru ala anna muhammad rasulillahi walladina maahu yusiru ala annahum ay almuminuun حماء بينهم في نهاية الآية وكانت آخر ما وصل إليه البارحة ثم أنه وقف وقفة متأمل في حديث عاشوراء الذي يكرر في كل سنة وهو الحديث المعروف المتواتر المعروف ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء fa ictaauhu jazahu llahu anna kulla xayr ataaun saxi wa waafir wa nashkur ila al ixwa allazina aydan ataw min kulli makan min amrika fa ana ushahidu al ax Cheikh Thiam wa xayru دائما وهم معه خلال رمضان يتابعون هذا التفسير ويشجعونه wa fi anxaai albilaad fi kulli albuyutaat addiiniya araa kayfa yutaabicuuna hada alxadis allazi miluhu xayrun wa naxma bokk yu tedd yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu gannaaw bu ma nuyoo mbooleem ñi fi teew ci ay kalifa kalifa yuy dox ci wàllu àddina ak ñuy wax dox ci wàllu diine ak ñi nga xam ne itam ñu taxawal ay liggéey lañ ak ay dongoy daara nga ñëw di xool fu ñu war a royee ay jigéen ak i góor ci yoo xam ne ñoom itam xudwa lañ fii Cheikh Fadil toog soxnaa ma fi toogoon fees ko dell suñ soxna mi ngi nii toog Eh, mooy soxna Sawda ñi fi nekk ñépp maa ngi leen di nuyu ñu jóge ba Amérique tudd naa ala sabil misaal Cheikh Thiam nga xam ne at mu nekk dana ñëw pour fekkee si ko ak ñi fi teew yépp gannaaw bu ma leen nuyoo teg nuyoo boobu ci loxob Cheikh Iyane teg ko ci loxob Cheikh Moussa teg ko ci loxob Abdoul Aziz Dieng teg ko ci loxob stage nget teg ko ci loxo ba ci suñu sët bu doy waar bale Ibrahima Thiam di ingénieur en hydrologie e gannaaw bu ma leen nuyoo ñoom ñëpp ak ñi ñi seetaan et ndokkeel oustaz ndax démb ba muy jeexal dafa ne liñ ñu santoon lii mooy liñ ci jotoon mun e di wax waxab daana ko def ba jeex te taxaw guñ évaluer la ngay def jaaxle ba ngay jaaxle bi mu duggee ci sama bureau ma ne ko rembatul bañ ne la ca tuuru mànkewul bañ ne nañ utaat sotti dolli ca waaye dafa yem kepp macha allah ko ko waxe ne ko nag déglu naa la ba fi nga jeexalee suratul fatx ci muhammad rasulillahi walladina maahu ba na nga jeexalee nag ca baat aaya boobu nga xam ne yàlla gannaaw bu mu waxee ne ñu xiis lañ ci kanam éefar yi ndax dëgg taxaw seen ak njàmbaar waaye nag wax ne ñu ñu am yërmande ci seen biir lañ nga taxaw ci lool ci yërmande googu nga xam ne war naa tax ba ñi am doole bàyyi xel ñi néew doole ñi am war bàyyi xel ñi ñàkk ñii dem di uti giiroo war leen a bañ a pousser ba réew mi di continuer nit ñi di continuer di ñàkk fekk système ba mooy système wat taxas bu faree boor moo tax nga indi xadis ba nga xam ne moo koy firi ñu koy wax xadiisu ashura nga xam ne dañuy wax ne bu amee xadis mutawaatir boo xam ne ñëpp juboo nañ ci ba nga xam ne fu ashura jotee borom xam-xam yi dañuy uti ku ko soloo ñu soloo ko ci yow su ko defee ñu ne jëlee naa ko ci diw di ko yéegal ba léegi ba ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam xadis mutawaatir la boo xam ne dañ koy wax xadis ashura soo demee fu mel ni Muritaan am na itam ay goxam ci Sénégal yoo xam ne waxtu tam xarit ñëwee rek danañ uti borom xam-xam silsilaam pour que kooku jox leen ko ndax ñu bokk ca ñu koy sàmm xadis balaan lay wax mooy irhamu man fi ardi yarhamukum man fi salama arruhamaau yarhamuhum rahman yërëm leen waaye ñi ñi leen fare suuf ndax ki leen faree kaw mun leen a yërëm monsieur le président fàttalikul fa nga jóg yoon waay fàttalikul sa baay nekkoon ab gardien fàttalikul la sa yaay nekkoon di jaayantu fàttalikul foofu nga jóge xamal ne am na ñu fa nekk ak ñu ko gën a suufe irhamu man fil ardi ko mën fi sama monsieur le ministre du leen seen paase xam ne lii ñu leen jox warta nekk ak nguur maa ngi taxaw ci kanam bindkat bu mag bu ñu wax Cheikh amidu Kane mu bind téere bu ñuy wax euh, aventure ambiguë boobu sax daara la ci doon dal ak euh, waaye boobu ci beneen jamono la li ëpp solo fi mu bugg a ñëw fi ma bugg ñëw mooy lim bu mujjee def ci le 25 juin bi ñu génn benn interview bu mu def ak sud muy wax l'aventure ambiguë de Alpha Condé bu Guinée ak bu Macky Sall ñoom ñaar de liñ amee du nguur mu ne bu boo ko doon ne ndax ween seen ween yaay lañ amee di ñu nàmp mu ne déedéet sucette lañ leen jox dañ leen a jox kii yooyu nga xam danga koy def ci sa làmmiñ di ci foog ne ween nga amee te ameewuñu ween mu ne liñ leen jox foyukaay la Cheikh Amidou Kan a koy wax de du Sid Lamine mu ne liñ amee foyukaay la waaye du nguur nguur boo xamee ne dañ lay dicter rek nga bind te ñu lay dicter dañuy tibb li fi nekk rek teg ko ci poor bi mu dem teg ko ci bànk bi mu dem ngay teg nit ñi rek moo tax réew maa ngi métti rek te wallahi réew mënoon naa am jàmm réew moo xam ne seddul ba nga ne mënuñoo fa Europe tàngul comme fi Équateur bi jaar ba nga wax ne kenn munta fanaan ci biti munta fanaan fenn foo tëdd nelaw sistem social bi loo fekk nit mu am mu mun koo bokk ak yow sécurité bi duul réew mu toj duul réew mu yàqu waaso yàqu ko leneen yàqu ko tariqa yàqu ko diine yàqu ko leneen yàqu ko lépp luy may réew pour mu développer sur tous les plans richesse bi lu nekk a ngi fi tey diggante jëm ñaajo euh, jëm lam-lam bi li fi nekk ci gaz macha allah xanaa dañuy wax ni dafa éparpillé ñu wax nan lañ mun a amee lu ko rassembler waaye gaz a ngi fi pétrole ji ma nga fële ci frontière ak Guinée Bissau or a ngi nii ci Kédougou ci Mamakhonaok yeneeni barab lu mel ni euh, marbre mi ngi nii ci bandafasi fas yi à ouvert da ngay nii rek di ko séen mu fees asamaan si géej gaa ngi nii di Mbambulaan océan Atlantique xool ko sur tous les plans fleuve baa ngi nii jóge Guinée yegg si ba Ndar lépp war a mun a nekk suuf ak mbay nga door a ñëw ci nawet yi nga xam ne mën nañ koo maîtriser xam kañ la nawet di lool ba booy bay nga bay nga xam ban xeetu jiwu nga war a am boo xam ne ñeme na ndox su fekkee ne nawet bi meneewul noonu nga xam nan ngay def ba ut boo xam ne ñemewul ndox pour nga mun ko yooyu yëpp gouverner c'est prévoir yooyu yëpp ñi ñuy gouverner dañ ko waroon deprévoir waaye waxtu wu tawee ba bëri muy mun ndax fépp dana te xamee ne ñëw nañu ba nawet ñàkk ñëpp dana ñàkk nag mooy ne dañoo amul amuñ président France lañ amee foofa lañuy toog du fa dogalee réew mi lañ fi def yépp tibb nañ la ca duufoon yóbbu lekk tëli bi kan moo ko amee Eiffage ay doomi Sénégal a ngi fi donn woon ci ay Jean Lefebvre ak yooyu sax ne dañuy def waaye marché bi français yi pour buñ tegoo ci banque bi rek mu dem France nga ne nag am ngeen indépendance ñu ngi defar route yi route yi buñ ko defaree ci poosu kan lay dem ci poosu kañ lay dem kan mooy gagné marché bi kan moo koy am loolu nag teg la ay bor ba pare nag yokkul say ñooñ pour ñu mun koo tabax demal ci essence bi kan moo ko amee total moo ci amee li ci ëpp li ci des ku ci nekk am sa ñamu bët lañ la cey wax total kan moo ko moom France lépp da ngay tegaat rek mu daal di yeggaat France su waxee sax Sonatel euh, nu mu ci orange waaye orange nga fa même bu fekkee 42 pour cent la ci amee sax 42 pour cent bëri na même bu fekkee stratégie la sax pour ñu mun a jëflanteeg Mali mun a jëflanteeg ba ñu mun a yegg foofu yëpp ndax bu ñu amutoon parapluie boobu xëy na duñ fa mun a yegg waaye itam lu jar a taxawaat xool muy communication. Hmm. mënoon nañ koo jël nag secteur par secteur nga door a dugg ci géej gi. nga ne senegal seen géej gi ñi am lan lañ ciy jëriñ ñu ni la tus ñu ni la tus ay bato fii la ñuy jël tibb yépp yóbbu te lañ ca waroon a teg sax duñ ko ci teg lu fi nekk ci dañ koy teg rek mu ñëw ci kii bi rek daal di dem phosphate bi nag bu la ko nit wax mun nga koo jël nag secteur par secteur kon irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama xadis mm-hmm. boobu nga indi bu jar a taxaw la mm-hmm. kii nag faree kaw war a amee système xam lan mooy économie xam lan mooy politique toog naa ci benn bis ma ciy waxtaan ak président Wade mu ne ma man bi ma jaaree ci nguur ci laa def yu bëri yu ma daan théoriser di ko jàng comme étudiant ci laa door a xam ne ndekee mënuñ ko fee jëlee ndax dama ko doon wax ne ko développement bi ñuy wax ne réew mi jëm kanam na réew mi jëm kanam tey ñu ne PSE ëllëg ñu ne naneen moom moo war a jiitu walla indépendance moo war a jiitu man ma defoon ne balaa nga ne naam ne fa ma defoon ne l'existence précède l'essence waaye fokk rek lépp loo liggéey rek yow moom a goot sa bopp bay wax làkku jàmbur ngay demee armée jàmbur moo fi nekk armée francaise baa ngi nii toog ci Ouakam lu fi doon xam ñoom ñooy intervenir li ci des yëpp dañu ko tuddee waaye ñu ngi nii armée française dañu amee Donc la monnaie est française, l'armée est la langue est française. foo toog di wax ci assemblée ci fu nekk ci discours à la nation ñëpp di toog di déglu rek sénégalais sénégalais ban pour pourcentage lay déglu ñoo la mun a comprendre profondément même pa 10 pour cent ci sénégalais yi baat ya ngay wax ya ngay jël ya ngay indiwaat kan moo mun a xam boobu même les langues nationales yi ñu doon wax dañ ko war a promouvoir daanu na arabe bi nga xam ne moom ak lislaam ñoo fi àndandoor jóge fii ba Jakarta plus d'un milliard de personne di ko wax privilège nga France bi nga français bi nga xam ne lu tuuti la ci àddina minoritaire la arabe bokk na ci cinq cinq langues yi yi yi nga xam ne ni ñoo gën a mag ci àddina français bokk na ci ndaare ya yow nga dem ci ndaare daal di jàllale koog moom beaucoup de choses yoo xam ne mën nañ koo wax moo tax ñu ngi wax réew mi di wax lislaam bi waaye xare ba amoon démb ci lañ toll feek amuñu indépendance ñi ñuy wooye président loolu Cheikh Hamidou kan wax rek dañ leen a jox lu ñuy màcc rek taxaw màcc ba nag tax na xamuñu courant seer na euh, ndox seer na xamuñu ne euh, tukki dafa am lu muy jar xamuñ lu oto di kii ñoom ak seeni mbokk mun nañoo falu mun nañoo dund ña nga ca kaw di ndaataata lax moo tax la Sénégal est à deux ñu ñàkk lool ak ñu am lool nga xam ne marché yi nii lañ leen koy ubbilee moo tax ba bu seen ngeen dégg milliards yi nga xam ne ñoom rien que signature rek nga am ca marché ba lu dul jeex rien que signature coup téléphone rek nga daal di fees ak alal moo tax boo wàccee rek la tiital mooy la nga amoon dana rës dana am ñu dem di ci xëccoog yow mburu ma nga doon lakk muy tàng dootoo am mburu mu wow euh, pour ba fi mu mënatoo am mburu mu tàng te lale dafay wow donc deux vitesses waaye alhamdulilah moo tax ñi encouragé daara ji yàlla dig nañu nag ne dëpp dana am te bu boobaa ñi fare woon gannaaw ñooy faree kanam wa nuridu an mun na allazina istud'ifu fi l ardi fa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum alwaarisin yàlla nee na ndongol daara yooyu ngeen naan dañoo tilim dañoo salteel mbedd mi dañuy def insécurité war nañ leen fee jëlee bët bu set kenn jël benn baat sànni leen ko bu bokk ak morom mi di leen toroxal sëriñ si ngeen leen di utal ay tur di leen jiiñ ay njiiñ barke dem boo fi tuddee église rek ci si dañ ma daal di woo ne ma ah c'est le ministère du culte kooku am na degré ministre boo ko waxee rek uta dañ la war a jàpp yóbbu la ci yoon ñaata nit la fi nit di wax sëriñ si te kenn du la convoqué du police sax duñ la ko convoqué y compris les xalif généraux waaye tey boo koy wax ci église bi rek outrage te man mi jaar naa ci yéen ñëpp ngeen yëg ko. bu ma demee daf ma def ree ma ne ndekkee loi bii dañ ko doxal ci Sénégal gii. ana démocratie ñu ne la non non démocratie c'est pas important c'est la république donc on est républicain on ne pas démocrate il y a une différence entre être démocrate et être républicain la majorité ne compte pas c'est les institutions institution nag lu ñuy octroyer la lu ñu séddale la France ko doon séddale comme joxoon cër am nga ko comme ko joxutoon doo ko am ak yu bëri yoo xam ne waxtaan dana mos ñëw sëñ aadi fi ngay taxaw ak aaya yooyu ak ahadis yooyu ngay laal yu jaar di taxaw la déglu naa la ci yu bëree bari dugg nga ci kër yi ba kër yi xam ne nag lislaam ni ñuy dundee ci kër yi déglu naa la ci yonent bi sallallahu alayhi ci këram ci ay soxnaam ba problème bi métti mu dal di génn dem fanaani ci jàkka ja ba nga xam ne ay trace nekk na ci yaramom pour ñu xam ne kenn la woon ci nit ñi dafa daan am problème ci biir kër gi ba ne <laughs> tey de xajuma ci kër gi maa ngi fanaani ci jàkk ja bu demee du am fu fa tëdd bu tëddee bu ñëwee li ñu njëkk a seetlu rek mooy yaram wi def na ay marqué marqué nga indi ko lu am solo la pour ñu xam ne yonent bi kenn la woon ci nit ñi duutoon koo xam ne dafa doon dund isolement Bilaal daf koy romb daal di ne moom ne naa yeete fajar ne ko mu jóg julliwaay qulu lahu asalaatu xayrun min an nawmi mu ne ñi ne ko bilaal nag de yaa ko dese woon fuuy na de nee nañ la wax nga jóg julli mu ne na ko dolli ci nodd bi marka bilaal la ci nodd ak fajar ñëw yee yonent bi salaay sallam ak yu bëree bëree bari moo tax sëriñ bi dama lay wax ne déwén yaa ngi commencé ci alxujuraat ma ubbi la gum la ko tuuti ci romb bu gaaw xujuraat mooy néegu soxnaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy seen néeg ya xujuraat su ko defee nag foofu ngay tàmbalee dewen li tax ma indi ko danaa moo ànd ak suñu waxtaan wi léegi li ma la wax léegi ne danga nga indi woon kër gi ci biir waxtaan wi ba kër gi yëg ne li ñuy waxtaanee kat du léeboon lu pon du démb waaye tey la ca seen kër Cheikh Thiam ak ñuy wax démb man ak yow ñu toog mu ne am na kër goo xam ne dañoo jote woon ba buñ daan lekk ku nekk da ngay def sa ndabal bopp nga firi alquran ca ngoon nga ñoom ñëpp ñu teg defandoor benn ndab def délégation ñëw seet si la ne la kii ba nga ko firee ba léegi dafa mel ni yow keroog dañ laa waxoon li xew ci ñun ngay ñëw di ñu waxtaane biñ paree ñu ne leen rekk koy faj mooy nañ def lak ñu wax ndax yow kenn ci ñun waxaw teg yow kenn ci ñun xamu la teg lak ñuy wax moom la ñuy dund kon yaa ngi dugg ci xujuraat mu ne yaa ayyuha allazina amanu laa tuqaddimu bayna yadi llahi wa rasulihi ana lu koy waral abu bakar ak Omar ñooy xuloo xuloo bu metti banu tamima ñooy ñëw dugg ci lislaam te ku duggaan ci lislaam rek yonent bi sallallahu alayhi li muy njëkk a def mooy ut kenn ci ñoom def ko jawri ne ko wuutuma fa farewama fa Aboubacar ne diw Aboubacar ne al aqra ibnu xaabis ngay jiital ci ñoom Omar ne ko déedéet alquqaa moom ngay jiital Omar yëkkati Aboubacar yëkkati Omar yëkkati Aboubacar yëkkati ne ko weddi ma rekata moo la tax a jóg lu ma wax nga wax contraire ba Omar ne ko du ma weddanteeg moom mukk yow mu ne ko man rek ngay weddi ñu nekk fa yàlla wàcce ci lii xool ca kër ga lay xew maanaam alquran dafa jël minal qawaid yi lay xew ca biir néeg ya lay xew ci diggante kalifa yi lay xew ci diggante jawriñ yi ci ku nekk ni ah man kat diwa gën a nekk sama waaye nañ ko jiital alxuraan wone nag kay nekk njiit ñi jiital ko institution ba nan lañ war a jëflanteeg moom mu ne yaay yoon laa tuqaddimu bayna yadillahi wa rasulihi wattaqu llaha inna allaha samiun alim yaa ayyuha allazina amanu laa tarfau aswaatakum fawqa sawta nabi fekk yonent baa ngi toog ñi ngay coow ci kawam waaye xoolal la cay topp ba mu waxee loolu yépp ba tegal leen ne leen warta demee noonu jarul coow rawatin nag yonent baa ngi fii bu ngeen waxee wax leen dànk déglu ko nag moom mooy validé moom moo am dernier mot bàyyi leen ko waaye ku nekk bugg a influencer ku nekk bugg a yëkkati lu ko waral ah Omar jógee fa waxtu wax wax ak yonent bi rek daf koy ne naa nga wax naa nga wax yonent bi ne ko li ngay bugg a wax lan la baat ba mënatula yëkkatiku ndax dem na ba alquran na ñëw yar ko won leen ne yëf yi du lu ñuy yëkkati pertinence la loola muy wàcce itam alquran war koo mentionné inna allazina yagudduna aswaatahum inda rasulillahi ulaika allazina imtaxana allahu qulubahum li taqwa lahum maxfiratun wa ajrun azim su ko defee looloo waroon a wàcc moo tax a wàcce loolu mu ne nag la waral saar wi inna allazina yunaadunaka min warai alxujuraat mu ne aksaruhum laa yaalamuun ñooñu nag ba nu tamimata nag arab ya fa nekk déparé fa nag ñëw yonent baa ngi fattu mi ngi nekk ci biir ci kii këri soxnaam xujuraat yi seen néeg ya nekk ak ñoom war a dund nag une vie de famille boo xam ne waxtu woowu mooy xaylulaam mi ngi toll ci war a dallu ñu taxaw naan ko Muhammad génnal <laughs> suñ laam mi ñu ñaw yi boo génnul ndax nga mun cee mucc ndax bu buñ la bakkul rek ah xam nga kon nga cee yàqule ñu ngi koy won nañ mu ne loolu mooy liñ gis chantage yonent bi sallallahu alayhi naan yéen a ngi koy woo d'abord ci turam di yëkkati ay baat xaar leen ko ba mu génn lu ngeen am luy revendication ngeen def ko walaw annahum sabaru xatta taxruja ilayhim la kaana xayrun lahum wallahu gafurun rahim muy benn ci xaaj yi beneen bi itam yaa ayuha allazina amanu in jaakum bi nabain fatabayanu an tusibu qawman bi jahalatin kooku walid ibnu eh, maabad moo koy waral bi nga xam ne baayam noonu yonent bi sallallahu alayhi wa la woon moom nag mu ñëw dugg ci lislaam asaka wàcc yonent bi sallallahu alayhi yebal ko ci bani banu xuzaata ne ko demal nga ne leen asaka wàcc na ñu dajale seeni asaka mu dem ba ci yoon yi yëpp foofu dem ma fa yeggee ñu rey ma reyoon naa fa nit te ña may xaar xerewul mu dëppaat dal di ñëw ci yonent bi sallallahu ne ko wax naa leen ko bañ nañ ba tëdd ci suuf yonent bi sallallahu ne na xare dem ñooñu ñu yëg ne aayab asaka wàcc na ñu dajale lañu amoon di yónnee pour joxe asaka yonent bi sallallahu alayhi wa lii nga def nag lu la ko tax a def mu ne ko ak xutt rek ak ragal wallahi illa illal jub na rek dara lu mooy ak ragal ak tàppet taxuma ko def waaye li ma waxoon du dëgg gis nga ko problème yooyu yëpp bu ci nekk dafay ñëw du créer règle rek ci fada maanaam buy légiférer du jël benn mbooloo mu dem daje fa fale ne société bi nañ ko légiférer puisque lii la gëm du jël benn assemblée boo xam ne quelques individus ñoo def ay commission ñëw ne lii la ñu gëm waaye ci le vécu des des personnes la ñuy defante ci seen biir di wax fa lay jëlee loo xam ne nag valable na ba àddina tukki moo tax sababu nuzul am solo te da nga koy def toujours Cheikh Hadi moo tax toujours may taxaw di la ma la ci sa mbooraan mi ngir ndax bañuy bañ daan nekk ci daara ja comme niñ ko daan waxee dañ daan wax ne demal kisaati kisaat nag boo fekkee mbooraan da ngay teel a ñibbisi ndax da ngay daal di rek tibb daal di ñëw waaye boo fekkul mbooraan nag fokk nga gas lu xóot ndax ndesit la ca biir suuf sa moom rek nga cey mën a amee mu ne bi mu indee foofu yëpp moom lañ topp an tusibu qawman bi jaalatin waalamu anna fiikum rasulallahi law yutiicukum fi kasirin min al amri la antum ba jeexal mu ñëw nag ci beneen mu ñëw ne mu ñëw ci yaa ayuha alladina amanu laa yasxaru qawmun min qawmin a foofa nag amaarata ak ñu mel ni moom ci ñu néew doole ñoo koy waral ponk li éefar yi borom daraja yi borom kii daal di ñëw ne yonent bi boo ñuy wooti nag ñi nga xam ne tekkiwuñ dara ak seen yére yi di ay xale ñu xam leen soo leen di boole ci daje yi dafay tax nag borom barke yi ak nag nit ñi tekki dara mënuñoo toog andoor ak ñoom waaye fu ñu waxee rek nga ne na ñëpp toog na ñëpp defandoor ñëpp yemuñ di boo bu ñëpp yemee rek dana am ñu gedd seen cër ñu yemu na ñoom yàlla nag di indi ak yemoo di indi wara taxaw nit di ko reetaan di ko xoole ya ayyuha alladina amanu laa yasxaru qawmin min qawmin asa an yakunu xayran minhum waaye nag dolli la ca topp wala nisaaun min nisaain aa ah, boobu nag gis nga ko yàlla dafay sànni yar bi jëmale ko ci yéefar bi sànni yar bi sànni ko muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak waa këram aïcha moo toog ak safiya daal di toog xool safiya ba mu yàgg ne ko yahud bi safiya gàddoo fa ay jooyam ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi ne ko ah man de Aïcha mi ngi may sànni ay baat naan ma yahud bi mu ne ko yow Haaruna mooy sa maam Muusa mooy sa baay tax te man maay sa borom kër yow kenn gënu la waroon na laa woo ni nga mel alquran nag di ko yedd wala nisaawun min nisaayin Aysa la ak Safiya kon yar ba daloon na ceefar ba yéen a ngay yéen a ngi reetaan ñoom Ammaara yar bi del siwaat na moo tax charité bien ordonnée commence par soi-même état dafa war a nangu critique dafa war a nangu yiñ koy wax mu xam ne loolu mooy tabax ñëpp a ko bokk président bi ñu la jox wala ministre réew mi duwul sa kër ndey duwul sa kër baay moomoo ko say waajur moomuñ ko ñëpp a ko bokk te bu suuxee ñëpp lay suuxal lislaam itam noonu la moo tax bu ñu waxee yonent bi waxal ko ci soxnaam waxal ko ci ñu ko wër waxal ko ci saxaabaam gis nga fa mu ubbee Aboubacar ak Omar bu ñu la waxee ne ñoom ñoo doon xuloo ku nekk war a am ki nga xam ne moo ko gënal pour pour mu jiite ji fële ba seeni kàddu di yëkkatiku fa ma lay indiwaatee ñaari soxnaam lii boo demee ma nga ca tabar yi lu njëkk la ma nga ca buxaar yi bu ci nekk euh, mu ngi fees dell nga xam ne daf lay won ne nii lañ daan gérer société boobu bi mu jeexalee ci ñooñu ba indi ca wala tanaabazu bil alqaab bi sal ismul fusuq badal iman wa man yetu fu ulaayka ba jeexal ci mu ne nag yaa ayyuhal lazina amanu tanibu kasiran min ba jeexal ca ma nga ñëw nag yaa ayyuha naasu naa xalaqnaakum min zakarin wa unsa wa jaalnaakum shuuban wa qabaila kooku ñun ñoo ko moom drapeau boobu ñun la ko yàlla terale boobu ñun dañ ko waroon jël di ko taf fu nekk di ko demee ne bii moo wane suñu gëdd ci lislaam ndax fatxu makkate dafa am démb indi nga xudaybiya sëñ bi fatxu makkate nag dafa am bi fatxu makkate yeneen bi sallallahu alayhi wasallam tànn bi bilaal ne ko jógal nodd mu nodd gaa yi ne hey gàcce gi fu ñu koy waxee ji ëllëg baaxooñ bii tëb xan xan xan xan siñ kaw ay waay ji ñi deewoon ba fekk lii ñoon ñoo sowe waay waay waay ñu ko fekkewutoon suñuy maam ñooñu dañoo am chance waaye ñun ñu ko fekkee ñoo rëy gàcce def nag ne gàccee bilaal mi nekk nit ku ñuul ñu jël ko di ko jiital ci bis bu am solo bu am ni fatxu makka jiital ko ci kanamaat dina bi yépp baat bi gën a mag bi lislaam am te mooy baatu allahu akbar moo ko yëkkati ci kaw te baat ya sax daf koy yàq du wax ashhadu an laa ilaha illa laa lay wax ashhadu te ashhadu mooy maa ngi seede ba ñun koy ree naan waaw gaynde yi muy yim ñuy wooteel de bu yegsee nag <laughs> gaynde yi ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam war a signé ne siinu bilaalin boobu de ci yàlla chiin la baat boobu bu authentique la loola wara a nekkaat tampon yàlla yàlla indi koon indi loola nag ya ayyuhan naas inna xalaqnaakum min zakarin wa unsa wa jaalnaakum shuuban bàyyi wa qabaila taarafu inna akramakum inda allah itqaakum kooku wone ne ne kenn gënuñu te la gënoon ñun lañ ko joxoon loolu lay firi ñun nit ku ñuul loola ko taxoon a wàcc léegi nag ñiy wax discrimination raciale ba taxoon mu jël jur lëm jur première place bu ñu dindee discrimination discrimination raciale ma nga noonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci événement bi gën a am bi gën a mag ci lislaam yëkkati bilaal pour wax ne nit ku ñuul jiital leen ko kon bu ñu toogee ba léegi ñi wax nit ku ñuul ak ku weex nañ toll lislaam raw na leen bu yàgg ba ñu fàtte pënd ba bàyyi na leen bàyyi na leen ko ca gannaaw nga ñëwaat nag ci mu ñëw innamal mu'minuna ixwa ba jeexal xula tuallimuna allah bi dinukum ba yëgsi euh, ci fi nga xam ne euh, nit ñi danañ koy def te mooy ah man jullit laa lislaam kay nangam mu mel ni yow yaa defal lislaam te fekk lislaam moo defar kon yu bëri ay xisas la dama ci doon pousser pour ñu xam ne ren firi mi nu meloon war na ko raw te bu ko sëriñ aadi amee yooyu mu ci dolli ak yooyu mu ci indi xista yi may wax ak yeneen xista yoo xam ne dana ko indi waaye dama doon yëngal seen shaahiya seen appétit laa doon yëngal pour ngeen xam ne la ca kanam déwén moo dàq nga door a dugg nag ci xaaf nga xam ne alquran dañ wax min xaafin ilaa xaaf danañuy wax ne lisla alquran yëpp ma nga ca xaaf boobu wala ñu ne mi ngi ci euh, ay tënk yi nga koy tënk xaaf boobu bokk na ci almuhim mooy sëñ aadi dana leen ci ñëwal ci loolu ak ci lu ni mu mel ni nag comme ni ngeen ko waxee rek sëriñ mi nga xam ne jël nañ ko tuddee ko bis bi junj la bu mag fahal mu muddakir jël ngeen ci ku nekk ci yéen benn côté lislaam nag dafa yàgg wone Cheikh Fadil wax na ko ci tàmbali ba wax na mahmoud abbas al aqad ca ab xariyaatam ya nga xam ne ku nekk daf la daan jël am lu mu wane ci yow nga xam ne tey boo doon wax mag mu dal mu gëm moo xam ne ngëmam musta wëndeelu ca fa mu gën a feeñee isra wal miraaj ñëpp di werante ndax doxu nangami fan kenn mun na koo dox ci benn guddi gi ne Aboubacar kaay la sa waa ji wax mu ne man ma fa woon ne da ngeen may wax ne dem na ci asamaan si ñëw loolu kay werante wu ma ko man kay bu ma newoon dem naa ci asamaan si fekk yónni waxoon waaye waxutoon mi'raaj ndax diis ga mu ne ko xakkay loolu itam bokk na ci dama bañoon mu diis moo tax waxuma ko waaye gannaaw yow indi nga ko ca kon loola ca la isra ak mi'raaj la duutoon isra rek waaye damaa tàmbale woon ci isra boo demee subhaanallazi asra bi abdihi rek la wax bële nag ca wan naj mi nga ko cay fekk kon Aboubacar booy wut ku dëggu ku dëggal ku gëm ku dem ba jeex bokk fa mu bokk doon la muy doon nga ne Aboubacar rek doy na doy na lislaam boo dugg soxlee jàmbaar joo xam ne lu ñu wax rek mu bocc jaasi ja ne xaaral ma ñëw lijjanti loolu dañ cay weranteem ma won leen ma tontu leen tontu lu gaaw li nga ne Omar a ngoog booy ut infaaq fii sabilillah joxe lim am yépp maarakatu tëbook lu ci war ak na tëboog yem war a xeex ak Rome nga xam ne moo doon puissance su jamono yépp moom mooy ki ko waral maanaam la ca war yépp ci lekk ci naan ci lépp mu war koo def nga daal di ne Ousmane rek doy na ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal di ne Ousmane lu ko neexati def bisab tey bi yàlla dootu ko topp dara nga ñëw ci buntu ci xam-xam yonent bi xam-xam àll yi mooy buntu dëkkab xam-xam ba ana madinatul ilmi wa alim baabuha ngay jël ci loolu nag di ca topp jiil baada jiin ca aima yi nga xam ne ñoo taxawal li nga xam ne daahib demal ci abu xunayfata nu'man demal ci euh, imaamu Shafii dégg nga demal ci Ahmad ibnu Hanbal demal ci imaamu Daarul Hijra Malik ibnu Anas nga door a ñëw nag ca seen taalibe ya ndax madrasa bu ci nekk rek da ca fekk ne dañ lay wax ne Malik nee na waaye Malik ci kan la waxee ndax moom itam dafa am eh, ay taalibe yoo xam ne ku ci nekk ci ñoom jële nga ci moom ay darsu ak déggin loolu mooy xayawiyat haada diin nga ñëw ci ñooñ tariqa nga xam ne wàccewaat nañ diini ba diine nekkul lu sëcc kenn mënatu koo jot waaye lu nooy luy def yërmànde ci biir xol ci diini soo ñëwoon fii ala sabilil misaal nga ne ana alaaji Omar Fouti ak jaaseem ja nga xam ne taxaw na jàkkaarloog tubaab yeeg yeñ amoon yépp ba ñu mujj gi ñi def jël ci kawar gi teg ci kawar gi bugg a boole jullit ak ay jullit fekk siw leen ci seen jeu ana maam borom Tuubaa radiyallaahu anhu ci résistance ba fu nekk ñuy yóbbu ko fa mu indi baytam bi nga xam ne mooy baytul xasiid mooy lan asiiru ma al abraar yi man nekkatuma ko ci suuf maa ngi ca asamaan maa nga ca malaaka ya ñoom ñoo may gis fii waaye man dem naa bu yàgg bàyyi leen fa maa nga ci yàlla ak yonent bi ak malaaka yi di ànd ak ñoom transcendance terrestre lañ doon def te foog moom il est céleste ma ngi ci asamaan jàngale loolu tariqu sabri tariqul al jihaadu nafsi jihaadu al adu bi subhati jàngale ko moo tax bañ defee chef chef d'inculpation mujahid mu ne waaw aha kay damay jihaad waaye nag bokkut ak ni ngeen ko foogeeg ni ngeen ko jàppee ñëwaat naa ci beneen facette jëlal ci Seydil Hadj Malick radiyallahu anhu moom itam ridwanullahi alayhim jamian jël ko nga xam ne biñ demee ba jàpp ne dëkk taax yi de moom dañ koy ferme modernité bu fi daara dugg bu fi leneen dugg na nekk ñun rekk mu taxawal ci ay za zaawiya ñi yee nit ñi fajar nit di fa di julli amat bal daarat zawaayaahu mu tasaare ko demil nag demit demit demit demal ci cheikh al alxaaji ibrahima Niass nga xam ne fekk na arab yeeg tubaab yi euh, arab yeeg naari gànnaar yi shérif yooyu li ñu waral ak ñoom yëpp mooy topp leen rek ne shérif baa ngoog aalim baa ngoog di ko topp ñëw nekk taalibe ba euh, cheikh abba mën na abba cheikhaani lañ koy wax ñëw wax jur wax juré jë nga xam ne ci Cheikh Mouhamed al Hafiz la bokk bokk ci surafa yi gën a jege ñu xam leen ci Mauritanie ci bayt yi gën a mag al mu ne achamsun badat bi laylin taaliuha saadu wa ma kaana chanu chamsi bi layli an tabdu xool baay bam yàgg rek mu ne yéemu naa ko guddi te jant feeñ na guddi mooy jant baa ngi yonent bi sallallahu alayhi ku bëggoon doxali na mag yéppam mi ngi nii kon ci siñ biir nag mënoon nañ ko di wër kër par kër fu ci nekk kéemaan bu jar waxtaan ni boppam bu dañ ci mos a ñëw li tax nag mooy indi ko mooy fa nga jëm déwén te ngeen waxoon ko sànq mooy loolu yàlla ubbee fii ci suuratul xujuraat duwul nag nettalib démb bi ma la nettali woon déedéet laa ko aswaatukum fawqa sawta nabi mooy ku toogal yonentu bi sallallahu alayhi danga sallam koo war a déglu su sëñ aadi di wax ne yàlla nee na da ngay déglu comme na ngay dégloo muhammad sallallahu alayhi wa sallam sart ya aalimun aamilun aadilun yooyu yëpp mu dajale ko ba nekk aalim toog di wax ak yow déglu ko waaye sañoo yëkkat si sa kàddu ci kanamam yi yëpp mu doon wax yonent bi sallallahu alayhi wa li tax mu mentionné ko bàyyi ko fi mooy daf fee jeexul mu ngi fi ba bisab tey bi ndigal daf fee nekk moo tax fooye leen wutee leen loolu mu wax daf lay daal di dal waaye soo ko defee ñu daal di ne ah loolu maraboutage la loolu nangam yéen ngeen am ay institution yu tekkiwul dara naan institution yi dañ leen a war a jaamu jël baatu république def ko ab yàlla jël baatu président def ko ab yàlla jël baatu ministre yooyu yëpp des institutions de la république république kan moo ko teg ak bi ngeen ci amee du Jules Ferry mi nga xam ne franc-maçon la moo leen ko jàngal Muhammad sallallahu alayhi wa sallam da ngeen nax seen bopp lislaam nag yegg si na ku ragal dawal lislaam yegg si na ndax ku gis jataay yii gis jàkk ji président nag danaa ko laaj benn laaj daaw ak daaw jéeg de doon na invité doomu daara yi ren invité na am ndogu li am na ren xëy na daf koo fàtte wala xëy na politik bee ñëwagul nañ bàyyi di caaxaane daara yi ak weeru koor yi suñuy tëral dara nañ ko tëral que dafa war mbooleem jiiti lislaam yi dañ ko def muy institution li dalee Mauritanie Maroc yooyu yëpp olama yi dañuy président day toog ak ñoom fekke firi mi roi bi day toog ak ñoom xam ne réew mi mu nekk lii ci la bokk institution la peuple bi gis ci seen bopp waaye du doon sax woo leen pour buñ génnee ku nekk daal di def benn kàddu boo xam ne propagande la xeeb alim bi la xeeb boroom xam-xam bi la xeeb sa njàng la li ñuy ixtiraamante itam buñ toogee bay woo kenn ci ñun du ko tuddee ngir yàlla na nekk li wajillaahi karim sëriñ daf ma téléphoné ne ma ah dana laaj ma indiwaale kado mën na ko mukk yow yaay kado bi yow boo fa ñëwee ba toog ba ñu xam ne kii doomu daara la ba nga wax ba feeñ loola mooy cadeau bu mag bi yaakaar naa ne lim leen indil yéen ñëpp xam ngeen ne cadeau la wax na leen tey loo xam ne ku ci nekk ci yéen soxla woon na ko ndax lam doon wax ci économie fasalu ahla zikri in kuntum laa taalamun kon ahla zikri moo doon wax tey économie waaye ba ba mu ko tegee ci alquran rek daf ko teg ci li nga xam ne mooy contrat social daf ko teg ci li nga xam ne mooy transaction daf ko teg ci yi nga xam ne jëflante yépp mu tegal la ko te naan la ah yax baa ngi nii de te mu ngi koy wax ci kanam daara yi bu bu bu wàccoon lool rek ñu ne ko déet loolu ngay wax kat nekkul ci ci mbind mi waaye xam na ne li muy wax ci mbind mi la ñi lay itam gis nañ ko kon nag ndeke firi mi am na transversalité ndeke mun nga koo jàng ci administration dégg ko jàng ko ci wàllu déni dégg ko kon indil na leen tey cadeau bu mag su fekkoon mën maa koy wax wala keneen koy waaye dëgg la ñoo bokk opérateur économique waaye moom dafa jël beneen voie boo xam ne nag foofa lañ faral di déglu ñu itam jël ko dénk ko lu em ni chambre de commerce sur le plan national ak àddina bi kon su toogee ba wax ne aaye bii lii lii lii la ña xam ne kon ku xam yëf ya wax na ko ba pare nag mu ne leen jàngeewuma ko fenn lu mooy ci alquran loolu kàddu gënu ko rëy jataay bim ñu defal tey waxtaan wim ñu defal tey aaya par aaya yooyu yëpp dafa mel ni alquran dafa doon wàccaat te loolu lañ soxla ci alquran mooy muy wàccaat bés bu nekk ci bureau bu nekk ci néeg bu nekk ci barab bu nekk waaye soxlawuñ mu nekk léeboo lu peen soxlawuñ ko sababu nuzul yi nag daf ñuy won ne démb nii la demee waaye itam euh, takayuf ak alwaaqe daf ñuy won ne ndeke tey itam fi la bokk kon macha allah moo taxoon ma la boo ñëwee li ñuy indil moo gën a noonu itam la sëñ aaj def waxtu nekk wuy tuddee gaa moom ku koy tuddee ak ku mun di doon daf koy ne teraanga ji rek yaa ko moom ñu jox la ko kon loolu lañ jël instauré ko puisque dañoo dem a dem a dem a dem ba fi mu toll nit ñi xeet seen bopp ah kan laay tuddee sama yëf yi ñu ne la diw de dana indi enveloppe diw de boo ko waxee soo atul nangam ak nangam dem nañoo dem a dem ba suñ jotaay yi léegi tuddee nañ ko président ak première dame ak première nangam ma ne waay waay waay waay waay waay lii mooy xeeb sa bopp tuddee ko sëriñ daara bi nga dendal tuddee ko ilimaan bi nga dendal tuddee ko nit ki nga xam ne loolu moom lay sonne mooy nit ci diine kële ka muy sonnal bàyyil ñoo ñu tuddee ko bàyyil France tuddee ko la mu koy tuddee ñooñu ay jaami tubaab lañ bay leen tubaab yi tuddee leen lañ leen di tuddee ah ñooñu yow nag gannaaw jaamu yàlla nga seetal jaamu yàlla nga tuddee leen ko waxtu wuñ ma ne conférence wala daje ñu ngi koy tuddee président yi yooyu rek ma ne am ah, ma de duma dem man de duma ma tubaab du ma dem ci gannaaw jaamu tubaab wallahi jaamu tubaab lañ wallahi jaamu tubaab lañ liñ amee yëpp ku téléphone rek moo leen fay jëlee boo xam ne foofu lay jóge indépendance sori nañ ko lool te bu ko Cheikhou Hamidou Kane bindutoon def ko interview ci sud du ci Walfadjri bu la vingt cinq passé wane ne li ñu amee du ween li ñuy nàmp du ween ay kii la nu ngeen ko waxeeti mi ngoog mi bu bi ci bu wax waxuma nag bu piir bi bu piir bi ñaata lay jar bi chinois la l bu pur bi wala bu africain la nga xam ne dañ cey téye rek waaye bul defee ne dana leen génneel dara état yi amee yëpp bu ñëwee def discours mu rëy def nangam plan PSE nga ne PS bi ñaata la jar ak kan moo ko jàngat cey boo ko joxoon ay sénégalais sax ñu sonn ci ñu ne dërëm bi génnul gaal gi waaye dërëm beeg borom dërëm beeg yëpp ganaar ak nenam la borom ganaar gaa ko moom borom ganaar ga nag mooy France moom moom langue bi moom moom armée bi moom économie bi moom moom yépp mu mel ni kon lii mooy tax lislaam dund te wallaay lislaam dana dund wallaay dana tasaaroo wallaay dana fees àddina danañ toog ba ku xamutoon lislaam danga nga ci àddina ku koy laaj nag tey dañ leen ne ah ñooñu ñu ne terroriste fàtt leen déedéet bind naa téere dana génn ci fan yi maa ngi ko tuddee le jihadiste la presse gannaaw baatu jihaad moom lañ jël taqal ko danaa yëkkati baat boobu nag tegaat ko ci France ci kanam France ak ci kanam français yi pour wax leen ne leen boobu ngeen di bañ moom laa te dinaa leen wax lu tax ma doon ko téere bi dina génn ci fan yi incha allah daanaka pare naa ci kii bu mag bi le jihadiste de la presse dama ko jël nag ne gannaaw sëyf bu Cheikh Omar gannaaw kurus ba Cheikh Ahmed Bamba indi naa plume ak caméra pour wan la jihadiste de la presse incha allah kon yi yëpp ak yu bëri yoo xam ne jataay bi yëpp mënu ko ëmb comme ni ko sëriñ waxee ni ko sëriñ aadi jéggale ci tàmbali bi rek ñëw moom fi mu jëm déwén bu moom la commencé sol laa tarfa'u aswaatakum fawqa sawti na ba ba bugguñoo ba jàpp nag ne kilifa sax dafa war a jël sawti na bii moo tax bi may ñëw dama taseeg moom ne ko ah sëñ bi ana grand boobu mu a ma déet man yow foo toog ñi mu faa sol garab mu ne ko ëpp naa def yow moom yow yow lañu ñu war a wàcc suñ kàddu ci sa kanam waaye yow del wax ca kaw xanaa la waa ji waxoon foofu laa koy jeexalee yow mun ngaa wax ne ana li shafii mu yamudda rijlah ñu ne imaamu shafii am na nag ñu ko moomale keneen ci ay may mais man ci nas boobu laa ko mokkale woon ñu ne dafa am benn waaye bu fa ñëw mu gis ko mu dara jëw lool toog te fekk mi ngi jàngale te sooy jàng say taalibe sañ a say tànk ca kaw fara sañ tëdd di wax ñu la neexee ndax say taalibe fi nekk ñooy jàngal la la nga am yëpp jàng leen koy jox kon bi gan gi ñëwee nag mu gis kook dara ji ji mu jóg defar daal daldi toog daldi ko sànni nag benn baat ne ko ah nga baaxee ñu ci waa ji ne ko man jànguma di mu tàllalaat tànkam yi daal di ne ana li shafii mu yamudda rijlah yi bu ko neexee mu tàllal tànkam waaye yow bu la neexee sol sa garaam bu bu la neexee kaalaw bu la neexee def leneen li misli haada fal ya'malil aamiluun yëf yi kenn mageewu ko kenn kenn jurewu ko kenn wax la ak jëf rek sa jëf la lépp lu ñu wax ci diine yaa ngi koy def luñ ciy teete ba ci saxaayir yi yaa ngi koy teete lépp luñ ci xam yaa ngi koy góor góorlu di ko ci di di di di ko sonni sonn ci nit ñi ci biir réew mi ak ci bitim réew mi waxtu wu nekk loolu yëpp nag bu fekkee mayetu la nga sol grand mayetu la nga kaalu kon xawma ku fi war a tee kaalu ak ku fi war sol grand bubu kon sol ca kaw Cheikh Hadi macha allah say tànk rafet na sëñ buub jataay yii dee ko bëril del bëril di def ay conférence nit ñi dañoo soxloo di déglu ay kàddu yu bëri di dégloo lislaam ci ñu bëri dañoo soxla déglu ko ci sëñ aadi waaye dañoo soxla déglu ko ci yow dañoo soxla déglu ko ci ay universitaires yoo xam ne ñu nga fële côté technologie ak yeneen ak yeneen ku ni Sankhare nga xam ne indi nañ ko fi ay yoon nga xam ne les cinq prix Nobel dapp bi ñuy wër àddina bi mu ñëwee ci moom lañ dal te doomi daara la ñu mën ak moom ñoo bon daan boo ci daara bi ñooñu ñëpp léeg-léeg indi fekk ñu bëree bari sax xamuñ ko woon E, kon nag wa maa yaalamu junuuda rabbika illaa huwa junuud yi nag nañuy génn ndax ñi song si diine dafa bëri te ñoo ñooñu buñ génnul bu boobaa ñu bëri dañ defe ni lislaam dafa yaafus dafa ñàkk munta ay doomam dañoo ndóol soo génnu toon li ko noonu dañ defee ni lislaam e, dafa yaafus danañ fàtte jiili danañ fàtte njuga te ay doom yi daara lañ dañ leen fàtte ndax diggante bi lim dox rek mooy tax ñu fàtte ko waaye xam xam nañ alaaj jiili rahmatullahi alayhi xam nañ ne daara la boole ak am-am ak infaq ak lépp loo xam ne waaye nag bu ab jamono doxee tuuti rek dañuy fàtte moo tax yàlla indiwaat ko fi indiwaat fi ay doomi daara ni yow ñi taxaw di dund ci seen am ñaq loola ñu ne nit jàng na ci ay université jàng yu bëree bëri soo demee ku mel ni professeur Malick Ndiaye bind na ci ci loola di yéemu ci diggante sàndaga ak yeneen marché yi ñooñu nga xam ne ñu ngi wër àddina bi yëpp Hong Kong fu nekk ñu fay dem te boo demee ci seen carnet yi fa ñuy jëlee note yëpp baata français nekku ci ay olofal rek ñoo ci nekk wala ay baatu arab loolu yëpp nag wane na ne réew mi li ko texee tere développé mooy liñ nekk jaamu tubaab rek tout est français dégg nga tout est formel forme yooyu nag soo ko amul ak yooyu soo ko amul bu boobaa bokk bis boo xamee nag ce Sénégal virtuel teggi nañ ko yegg si ci la Sénégal réel bu boobaa yii ñu dund danañ ko gis dana yaatu bu boobaa Sénégal dana développé ndax ay doomi Sénégal mun nañoo développé Sénégal. mun naa développé Sénégal ndax nit ñi moom la ñu gëm li fi nekk ci koom-koom ak li fi nekk ci ay jukko mun naa defar réew mi kon loola des nañu gëm ko doxee tànk yooyu kon une fois de plus maa ngi leen di gërëm di wax ne jataay yi loolu rek ko tax a jóg waxtu wu nekk danañ fi indi koo xam ne borom ab jataay bi la su ko defee nit ñi iktishaaf ko xamee ci ne ndeke lislaam am na ay doomam yoo xam ne xam nañ lislaam waaye am nañ fulla lii itam mooy tontu bi mu buggoon a tontu mbooleem ñi dal taalibe yi ci mbedd mi mbooleem uh, ONG yi tey indil naa leen seen tontu leen wax nag ne leen taalibe yooyu ngeen gis ñuy dàq yelwaan yépp sëñ mi moo leen dàqal yelwaan ñooñu gàddu pot yépp moo leen gën a mun a yooyu gis ngeen yooyu ngelaj yooyu muy sànni sax yooyu mu anecdote yooyu mu doon sànni anecdote yu daare la mi ngi ko feeslee dell nag bu ci doon wax ay garab gaag def nangam ak bu ci nett loon yu bari danga nga dem a dem a dem ba ne kii fan la jëlee lii kon euh, yéen ñi xas daara doomu daaraa ngi nii mis lu ko ëlf nag bañ bindoon ci Égypte boo ñëwee ñu ne junne yu mel ni yow ñu ngi fi nag ñu waafal leen ña nga ca sàndaga ña nga ca Amérique ña nga ca Chine ña nga ca euh, nu mu ci biti mbagg yi fii ci mbedd mi ngeen leen di dàqe te fekk mokkal nañ alquran jeexal nañ téere yi jaar nañ fi sax baal ma ma jeexalee sa mbokkam daara boo xamoon wax naa ko fi ay yoon danaa ko bugg di indi ci ubbite bi itam sa mbokku daara bu nekk médecin pédiatre laa ko tuddee Mbàkke Awa Ball nga xam ne ci daara la jaare mujj nekk pédiatre jàng ko ci anglais pratique ko France mujjee ko Sénégal waaye boori laay bëgg a wax mooy Abdul Wahab Ndaw jàngee foofa ca kokki bi mu jàngee ba mokkal alquran ñëw Kaolack man maa koy yóbbu Kër ma Madiabel pour mu fay jàngale gannaaw gi mu dem Liban def fa bagam dem Irak def fa licence ñëw France euh, def fa maîtrise dem Angleterre def fa beneen maîtrise ñëw Allemagne def fa maîtrise ba pare te bu ci nekk ca làkk ba defaale fa doctorat nekk professeur d'allemand fii ci université de Dakar mujj na uji borom benn bis nag ma ñëw fekk gaa yaa ngi ko wër muy def conférence ma ñëw ne ko amma suali fa atrahu bi lugha al arabiyya étudiant yëpp ne ma wal jawaabu sayati aydan bi ñëpp ne ah professeur vous comprenez comme li ngeen def léegi ci sëriñ rek ñëpp jaaxle kii mooy tontu kii kii ñu defoon ne allemand rek la dégg bi mu jëlee wala français rek la ci boole fekk na ñeenteelu làngam moom la mujj di jàng ci université Dakar ay kéemaan a ngi fi ci biir réew yi ku ko jiixaatoon da nga gis ne c'est un pays extrêmement riche mais nag dañoo dem bëggamloo ñu ne benn modèle benn cliché bu ñu exiger rek moom moo fi war a nekk waxtu indépendance amee nag bu kerogee ah bu kerogee da ngeen xam ne li réew mi ëmb ci ay potentiel yu mag a mag la bu boobaa àddina bi yépp dana yéemu ci Sénégal te ba te te nag kuñ naj dana fekk da nga dem ba loo mënoon sax dootoo ko mun ndax da ngay neen yasar réew mi dafa ne yasar looloo tax métti na lool waaye incha allah bis boobu mu ngi ñëw ah, alaysa subh bi qarib incha allah. jërëjëf El Hadj Sidi Lamine wax dëgg yàlla kàddu yi am na solo envoyé nga message yu bëree bëree bëri. yaakaar naa nag dina dugg ci dina fekk aadaan saariya yoo xamante ni nañu ni ñu ko dégg ba mën a toj yaxu di nga xamante ni moom nga cax ci sa kàddu gu am solo gi nii ah ñu ñaan la rek nag lii ngay defal nit ñi doomu daara yi ñun tamit kañ nga ñu koy may ñu defal la ko parce que nag yeeyoo nga ko yow aussi mérito nga parce que vraiment prouvé nga fu prouvé nga loo xamante ni wax dëgg yàlla euh, daara nga génne te vraiment nit jàng na ba jeexal téere yi jàng fu nekk université yi ci àdduna yëpp mu wër ko te mënut a fexe ba taxaw taxawal nga ko ñu gërëm encore une fois oustaz Hadi di ko ñaanal man damay wax ni moom waruñu ko gërëm dañ ko war di ñaanal rek yàlla nañu ko yàlla sàmmal yàlla nañ ko yàlla wottul Serigne Mbuub nag wax dëgg yàlla moom aussi comme ni ni ñu waxee rek man vraiment tey moom découvrir naa lu bees nag ci moom nag wax dëgg yàlla kii moom ndekete kaang fóore la xaw nga alxuraan kese dañ naan rek kii kii kii la kaang la waaye ndeke moom mën nañ ci mën nañ cee yokk fóore euh, maa ngi ci jotaay bi ñi nga xamante ni ñu ngi toog maa ngi gis ñu mbokk Modibo Diop ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di ko tatagal gis naa fi aussi oustaz Khadim Ndiaye euh, Cheikh Khadim njaay mii tamit ak oustaz Adama Seck muy ñoo xamante ni ñu ngi def daara lu bëree bëri lu ama am solo maa ngi suivre débat yu am solo yoo xamante ni ba éducation nationale yëkkatee seen lu bees loolu ñi ñu ekkati woon ni daara yi dañuy def li nangam ñu xeex ci xeex vraiment su meeku nekk ay avocat daara nekk avocat l'islam ñu ngi leen di gërëm ci loolu di leen sant di nuyu aussi di bég ci teewaayu Cheikh Moussa Diakhaté di rafetlu kàddu yi fi jip oustaz Abdoul Aziz Dieng imam aussi ñu ngi koy gis nañ ko ci mbooloo bi ñu ngi koy nuyu bu baax a baax ak suñu assagise yële ci ginnaaw mbokk yu baax yooyu di gërëm encore oustaz Assane Diouf vraiment ci coordination bi liggéeyam rafet na di ñaan yàlla koor yi nga xamante ni mu ngi ñuy tàggu wax dëgg yàlla bëgguñu mu jeex waaye nag weer la rek weeru yërmande la weeru barke la waaye dafa gàtt fi mu ne mu ngi ñuy tàggu bu ñu seyoon tey mu dewaat ba ci kanam xaj nañ sant sekk ak jow ñoom bu ñu seyoon suba suba ñu wóore waaye wax dëgg yàlla neex na neex goo xamante ni daal ñu ngi ñaan yàlla lépp loo xamante ni jaamu nañ ko ci yàlla ko yàlla nangu julli yeeg woor yeeg yépp yàlla sàmmal ñu wal fajri sàmmal ñu njiitul wal fajri sàmmal sàmmal ñu doomu daara di leen wax déwénati di ñaan yàlla mu yokk fan àggali yéen ba ñu fekk ko déwén ak Moustapha Mbeng commerçant aussi nee nañu teew na si jotaay bi ñu ngi kontaan ci teewaayam di meeru Kër Massar moom tamit mi ngi mi ngi si jotaay bi di nuyu aussi nag umul banaat sharikatul xayaat wa rafiqat darb aseyda wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. macha allah macha allah. jotaayu tafsir ak oustaz Hady Niass bés bu jot ci waxtu wi. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا Thank you. jotaayu tafsir ak oustaz Hadi Niass bés bu jot ci waxtu wi. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين